de sang bi euh, génn comme niñ ko waxé won rek ni mise en place bi 20h la euh té du du yàgg sëriñ bi génn waye bala ñuy euh, gëna sori wat dañuy daan ñëw rek comme que ñu ci université du Ramadan ñu ngi ci Colisée waye itam ñu ngi ci guddi gu màgg tey jii ñu bëggoon xam rek quelle révolution pour l'appel islamique buñ bolé université du Ramadan Colisée de Lébé ak guddi gu tey jii. waaw xam nga diiné yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy ñëw da fi fekk ben genre. Euh, lu ñu fi teg euh, mën nañ tudd ni ay li comme ni ko maam Cheikh tuddee ci taaxat bi nuurika euh, wala tud ba muy tudd wa wala wahadaa bihi ahlul bisaati muhammadan li tu li tazuula an ayaatiha al waaw kay awhaam boobu moom moo amoon xam nga yonent bi salallaahu alayhi wa sallam daf ci fekk yoo xam ne nit ñi dañ daan foog yàlla foog dañ koy foog c'est-à-dire dañuy yaakaar ne yàlla fii la ne ñu ne ah yàlla ci xërëm bi la ne nañu wóori gi nga ko wóori ci xam xërëm bi yàlla ci taal bi la ne nañ ko wal ci taal bi yàlla ci jant bi la nañ ko wóori ci jant bi mais moom ba mu ñëwee yooyu yëpp la boole jaa al xaq wa zahaqal baatil inna al baatila kaana zahuqan mu ñëw indi loo xam ne bu istu li ma makaarimal axlaaq ñëw ni nit ki balaa muy wëri yàlla na wër boppam ba pare ndax bu wëree boppam rek mën yàlla moo tax iqra ñëw iqra duñ ci sori <laughs> ndax xaw na metti mais li ñu gis moy à chaque fois bu yonent bi ñëwé nak teg lo xamné dafa wéssu ni miné won diiné parce que cité état la cité état la teg cité état bu Médine mais cité état bo xamné diiné mo koy doxal lu jafé parce que diiné dafa la subjectivité waye mom bu mu ñëwé il a objectivé la subjectivité et subjectivé l'objectivité comme ni ko Cheikh tourdé parce que fexé na ba def no xamné ne bi nit ñi di da fay fexé ba jikko lal ko te bu ko ci walalee rek diine rafet mu rafetal diine bu mu fi jógee nag moom yonente bi mu wax ni taraktu fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadillu abadan kitaaballah wa sunnati bàyyi naa ci sama ginnaaw ñaar yoo xam ne ku ci topp doo réer muy euh, téere yàlla bi muy alquraanu karim waaye man li nga xam ne moom la ma yàlla wax ma jon leex jox leen ko muy sama sunna ngeen topp ci loolu nag muy dem sunna yonente bi dafi des ndax fa inna muhammadan rasulun laa yaxiibu wala yaxiibu muhammad sallallahu muhammad ibnu abdullah mën nañ ko suul madin waaye muhammad rasulullah ba àdduna du jógee du fa jógee ndax risaala bi du dañ du dog du dog du dog loolu moom moo continuer ba ci Serigne Moustapha li nga xam ne moom la indi parce que avant moom Seydil Hadji Malick mais li mu révolutionné ci cadre xam-xam ci Sénégal kenn xamul nu mu toll te lépp mu teg ko ci période boo xam ne moo gënoon a jafe aadaa ngi taxaw di xoole aadaa ngi taxaw pour gaañ la waaye tamit colonialisme mi ngi taxaw pour gaañ la yooyu yëpp mu fer ko face mam Babacar ñëw ak ni mu ko taxawee mam Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñëw ak ni mu ko taxawee Serigne Moustapha ñëw Serigne Moustapha ba mu ñëwee il a fait une révolution au vrai sens du terme ndax li tax mu nekk révolution mooy il est parti de zéro de zéro cest à de zéro mooy ci période boo xam ne jamono boo xam ne kenn sañul woon woote benn façon xam bi moom kese boole xam-xamu diine bi ak xam-xamu nasaraan bi nga xam ne dañ ko doon xarab fexe ba ay njabootam mu fekk si leen ci loo xam ne ñoom ci boppam kenn ñemewu leen ko woon fekk si parce que ci ay musique Michael Jackson lañ commencé. imagine toi ko commencé ci Michael Jackson jeexee ci alquran donc ça veut dire que kooku il a plus que révolutionner loolu nag moom moo indi cadre yi mu teg yëpp. gis nga Colisée ak université du Ramadan lu tuuti la par rapport ak moom li mu réalisé parce que ci cadre xam-xam. colloque international de la jeunesse par exemple bi am nga xam ne moo amoon en képp kuy borom xam-xam ci àdduna bi ci xam-xamu diine ak lu mu mën a doon ñu invité le Sénégal le président de la république ñëw fekkee ko c'était la première fois et boo moytuwul mu nekk la dernière fois Sénégal benn nit a def mu réaliser loolu ñu continuer mu jël ay boroomi xam-xam ci daayira bi yóbbu leen ba extérieur yóbbu leen ñu dem Égypte ay ustaas yu mag dem wane contribuer fa li nga xam ne moom la Serigne Moustapha jàngale donc kooku li mu révolutionné ci loolu kenn xamul lu mu toll université Ramadan nag dafa ñëw continuer révolution donc c'est une continuité de la révolution université Ramadan thèmes yi bi wax nañ ko sànq li muy jàngale ci xam-xam guddi jote ku ci nekk jël si ñu jonjonte ci xam-xam bu bëccëg jotee nit ñi woor université da nga daan dem bi université Ramadan amul sax sa koor du saf dara tellement liñ ci daan jëriñu ñun ñi nga xam ne dañ daan yëngatu ci jeune ANRB univers université ramadan amul da ngay tonk tek nañ fi ñaari ba ñett at yo xamne koor gi saxul dara ndax loolu nga xamni amna leneen lu muy def parce que niko sunu euh, yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam waxe rek képp ko xamne da ngay wor ta sa wor ci xif ak mar nga ko tek da sa bët worul sa lamine worul say nopp worul sa tank worul da nga xifal rek mais tudul wor donc mom loolu la wone ni nekotul wax kesse mais c'est une révolution avec les actes to wax dëgg yalla il l'a fait donc ba Colisée ñëw Colisée aussi continuité révolution boobu la wax dëgg yàlla euh, niñ ko tuddee rek wali kayitu jaddi la maa bi bi li risalati maa bi ha ni ko maam Cheikh waxee ci euh, fi atun wax dëgg yàlla noonu la ko réaliser ci ci façon bi nga xam ne moom la capitaine indee Colisée ñëw indi façon jàngalin boo xam ne miinuñu ko woon ñun buñ daan wax ay téere jàmbur lañ daan indi bu dee ki jàng arab mu ne la euh, Ibn yi lii la wax jalaale ni lii la indi ah, ah indil la borom xam-xam bu nekk imam Malik la indi kii lii la indi am na solo waaye du la wax xam-xamu boppam bu dee ki jàng français mu ne Schopenhauer nee na nii ah eh, Max Weber nee na nii wala mu ne la Einstein nee na lii waaye moom mu fexe ba léegi li ngay jëlee fële du da nga koy jël rek tenc wala da nga koy jël rek la ko mais xam-xam booy génnee la ci xam bu beneen.

journaliste yi amaloon nañ ko ci wàccaay bi moo xam bu Kura Rasoul Ndiaye wala bu Ndiatte Dia bu ci njëkk disponible rek au niveau de la régie ñu daal ñu koy euh, baaxee comme ça ñu mën a xool itamit ñoom ana lan la ñu taataan surtout njaboot waxtu bi nga xamantene tel nañ ko ñëw ngir mëna magal ci guddi gi doonte ne xam nañ ne guddi la waaye fajar fi la leen fekk ñu bàyyi rek reportage yi daal di mën a ñëw comme ça Pape Mor ñu mën a wëy si si plateau bi moo xam reportage pour Koura Rassoul wala bu Ndiatta Dia bu ci disponible au niveau de la régie ñun yéen rek la ñuy déglu comme ça ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko partager ak euh, téléspectateur yu yi ak internautes yi nga xamante ne ñoo nekk di ñu suivre ci plateforme EVM Pape Morlo comme euh, ni ñu ko gisee rek reportage bi nga xamante ne moom moo doon jàll nekk bu njàtte ja waaye tamit euh, invité yi ñoom ñoo nekk euh, di ñëw. ko gisee rek ci reportage bi nga xamante ne Ndiaté Dia o ñu ko proposé waaye itamit euh, invité yi ñooy di ñëw moo dañuy def directement ci reportage Koura Rassoul Ndiaye après ñu dellu plateau bi kilifa gi di au niveau de la régie su fekkente ne reportage Koura Ndiaye bi disponible. Pape Mor ñoo ko gisandoo reportage bi nga xamante ne moom la ñu suñu journaliste reporter yi daal di jagleel ku ci mel ni Koura Rasoul Ndiaye ànd ci ak euh, Diatte Dia euh, ak Souleymane Bari moom tamit mu ngi ñuy xaar ci beneen côté bi parce que niñ ko waxee rek ne njaboot gi ñu ngi fu nekk ñëwee nañ tamit ñëw boo xamante ne ñëw yéene la te gis nañ invité yi ñu ngi commencé dugg gis nañ Cheikh Sarr ak euh, délégation woom waaye tamit kii di président Alioune Mamadou Dia mom tamit euh, agsi na ànd délégation wam mu melni ni sëñ bi moo ci des waaye Pape Mor gis nga organisation bi nga xamante ne la la Moustarchidine euh, di def ngir jagleel ko guddi gu màgg gi. waaw xam nga <laughs> organisation si daara bi mom euh, pour man ta aké do taakiidu <laughs> muakkadin la c'est-à-dire da ngay confirmer lu confirmer ba pare parce que lo xamné wax deug yalla du ben du ñaar ko xamné day organiser ak gamu ni mu tollu ñaata bâche ñu am Sénégal. waaye am na bâche boo xam ne bu ñu ko filmé rek ñu xam ne bâche yi du benn waaw donc loolu muy wane ni rek wax dëgg yàlla njaboot gi yitte yi ñuy def parce que am na ñoo xam ne sax seeni liggéey dañuy bàyyi ay fan ngir mën a fexe lépp ñoŋ wax dëgg yàlla. mais aussi ñu gis chapiteau bi aussi ak ba ko góor gi indee ba léegi wax dëgg yàlla ak li nga xam ne moom la représenté sur le cadre organisationnel ni mu rafetee ñun waa daara ji xam nañ ci dara parce que fi la ñuy jàngee mu doon lu am solo wax dëgg yàlla loo xam ne. Euh, day gëna contribuer rek di wané ni mom Serigne Moustapha euh njabotam na nako xam nga dafa am benn mbokk bu ma waxtanal ma expliqué ko mané ko dairatul mustashidin wal mustarshidat depuis ma ci nek ba légui musuma fataliko fuma fuma jëlé sama dërëm ne xaaral man ma jox addiya sama serigne té pourtant mën na tok ma xol sama aduna li nga xamné ne man gagné nako té sama serigne tax donc lolu muy signifier ni nekul sëriñ comme ni ko nit ñi jàppee xam ne dañuy toog rek nit ñi ñëw di leen indil addiya di leen jox ñuy bànneexu waaye koo xam ne la moom mooy investir ci njabootam sëriñ Moustapha il a investi des milliards et des milliards ci njabootam njaboot yi laa musul laaj kenn dërëm musul laaj kenn dërëm du du du du kenn parce que ku ci nekk yaa ngi wut financement musul bénéficier bénéficier wu ci in financement wu organisation wala aucun organisme loolu muy wane ni dëgg moo ko jox liggéey la def. liggéey am alalam def ko ngir njabotam lepp kenn donga tax muy serigne euh, mam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum ndax mission bi mom wax nako ben kilifa la am muy mam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum te ma ngi ñaan yalla mom mu nek sama kilifa donc loolu rek jarna lu am solo muy wone ni kat sacrifice bobu mu commencé mom serigne Moustapha njabot di ñoo fekk si ko si parce que njabot di ñuy gor lu ñu mën ba organisation bi bu jotté ñu def ci li ci war wax waxuma loolu waye sur le cadre financier aussi ñuy góone contribuer ndànk-ndànk di jàppale parce que li ñuy jàppale du dara sax waaye pour euh, bëri ko ci mbartal la rek teg ci tuuti loxo ndànk rek pour mën a avancer ndax organisation bi aussi wax dëgg yàlla finance daf ci am solo mbokk yi aussi sacrifice ñi def ñii seen compétence ci électricité la ñi seen compétence ci technique la ñii seen compétence ci cadre média la ku ci nekk yaa ci façon ba nga mënee ak la la yàlla jox sa xam-xam nga joxe ko mission bi wala cadre bi mu bénéficier ci yàlla yàlla barkeel lépp ci barke Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy dëgg yàlla mi aussi présence ñi nga xam ne ñooy ñi fi jot a ñëw Cheikh Tidiane Sarr comme ni ñu ko tuddee moom mi nga xam ne organisation wu daayira bi li ci ëpp seen Moustapha ci loxoom la ko teg euh, Aliou Mamadou Dia moom aussi di ko féliciter di ko encourager par rapport ak yi nga xam ne moo fi jaar ci cadre politique muy élection yi fi jàll euh, wax dëgg yàlla ñëpp d'accord nañu ni ñëpp seede nañu ni ci en moins de quatre mois def na fi benn percée bu exceptionnelle c'est vrai résultat yi nit mën nañoo yaakaar ni cadre chiffre la mais résultat dañ koy natt selon les objectifs am na koo xam ne objectif am du gagner wala perdre objectifam mooy mu yëg ni moom def na li mu war a def ndax gagner wala perdre yàlla moo ko yor comme que yàlla moo yor loolu nag donc nañu bàyyeek yàlla mu yor gañeek ak perte waaye ki nga xam ne nag moom moom moom yitte moom moom moom jëf mooy nit te wax dëgg yàlla Aliou Mamadou Dia jëf na wane na yitteem def na li mu mënoon a def yàlla joxu ko la mu soxla woon wala boog la mu doon wër ci élection yi amaana yeneen dina ñëw incha allah yàlla yàlla mottali loolu Sénégal bénéficié wu ci ñi nga xam ne aussi moom lañ considéré ni ñoom ñoo gagné yàlla na leen yàlla jàppale ba ñu mën a nit ñi parce que loolu moo ëpp solo mu jéglee nag jàmm incha allah donc présence am daal wax dëgg yàlla am na solo torop si jotaay bii nii ndax c'était là pour sa première sorti média wala boog bu ñu bu nit ñi mën a xam sortie publique après élection yi moom Aliou Mamadou Dia solo ci walum euh, élection yi ak ki nga xamantene moy euh, le président Alioune Mamadou Dia ci anam bi nga xamantene mom la battre campagne parce que dafa neex euh, nga tek ko xamantene mo am meilleur profil bi mo am meilleur programme bi waaye itam mo am meilleur parcours té loolu bu fekkonté ni militant pur rek ñoo ko wax day am neneen lu mu niru waye amana sax ñi nga xamantene duñu ay militant pur mais sympathisant yi ñooñu gën a xam kan moy Alioune Mamadou Dia du waa Sénégal rek ñoom ñoo ko xam parce que liggéeyul ci domaine boo xamante ne fii rek la tënkoo mais dafa dem ba jéggi ndox te ñooñu tamit gën koo wet gën koo jox cër ngir yàlla ak fonction développer ay dëkki-dëkki ba tax na li nga doon wax sànq ne ci côté élection yi dëgg la dañuy compter ay carte wax ne voix sàngam na mais am na ñoo xam am na koo xamante ne xolu xolu àdduna la gagné te loolu moo ëpp solo muy président Alioune Mamadou Dia ndaxte discours am yëpp ci yar la ko ci teggin la ko ci xam-xam lako ko benen beneen bi ci des itamit ñëwaat ci walu bu ni mel militant pur yi dañoo joxe leçon dañ leena a ba nga xamantene yenen yeneen seen yeneen nawle dañoo roy ci ñom ba tay Sénégal tay am benen xar kanamu politique parce que soy def politique té bëgg ko def ci violence bëgg ko teg ci wax yu ñak kessa bëgg ko teg ci saga dañ lay dal di beddi parce que bobu c'est révolu politique bi nga xamantene mom la le parti de l'unité et du rassemblement teg depuis 2017 parce que parti la boo xamante ne tey bu jël tey parti yi fi nek mom mo leen gëna yagg buñu jëlé APR yagul buñu jëlé jëlee parti PASTEF yagul ainsi de suite kon parti PUR depuis 1998 ñu tek ko muy tagat ay ndaw ba 2017 mu génn dem ci joŋante yi am fa lam fa am ci pencu ndaw réew ma ñu né déet na way mu ñëw 2019 ñëwaat itamit tay ci 2024 bi digënté bi changement bi te organisation bi nga nek doon wax

Euh, lolu tamit euh, nek lo xamantene ne réponse bi yakana ñun ñëpp gisoon nañ ko ci réseaux sociaux yi waaye mën nañ ne le président Alioune Mamadou Dia gàcce ngalaama ci anam bi nga xamantene non le représenter le parti pur parce que parti pur lolu rek euh, le mën wané lolu rek le mën def pour que non seulement mu gagner xolu askan wi waye itamit mu gagner li nga xamantene moy mooy confiance askan wi té lolu dañ ko gis Pape Morlo sànq niñ ko doon waxee kii di Souleymane Bari moom itamit mu ngi ci beneen côté bi ci des fas yéene def euh, li nga xam ne moom mooy reportage ci biir salle bi waaye itamit yooyu yëpp dafa daal di ànd ak euh, li nga xam ne rek foofu la liggéey bi toll ba tax na ay euh, souci technique mënul ñàkk moo tax Pape Mor Lo sa micro da ko joxe xam naa ne dañuy obligé partager micro bi ndax li ci des bareetul waaye itamit dañuy téye antenne bi ci nuñ ko mënee rek ngir yàlla ak balaa kilifa gi di ñëw lépp loo xamante ne njaboot yi war nañ ko xam ci historique gu lii di euh, université du Ramadan ba Colisée ndax lan moo tax tey ñu indiwaat seen mooy que ne bés bii da daan fekk ñu nekk ci biir université du Ramadan bés bi da daan fekk ñu nekk ci biir Colisée de l'éveil kon bés bi mësta ñàkk am ci ëttu Serigne Mouhamadul Moustapha Sy sànq yaa ngi ko doon wax euh, que ne toog nañ ay at defuñu Colisée. dafa amone lu xew Sénégal dafa amone lu xew ci aduna mu nekkone Covid te doonte ne sax université du Ramadan bi muy am euh, mu ngi fekk Covid dañoo ñew def ko ci benen anam bo xamantene ci lañu gëna a liggéey digitalisation parce que Moustarchidines tonku wuñ ci li nga xamantene mom moy wop mom moy mooy mom moy sedd dañu teunk sen bopp ci sen programme nga xam nañ ne loolu mooy seen yitte te àdduna jamono nu mu tëddee rek dinañ def le tout. ba seen mission ñu mën ko matale ci wàllu boobu noonu euh, Pape Mor Lo ren nag ñu am ko ci anam boo xamante ne dafa wuute ak nañ ko doon defee ndax da ci dugg da nga dugg point bu am am am solo dellu ci euh, campagne yi nga xam ne moom lañ doon amal ah, loolu tax tamit ñu aj yenn ci programme yi bàyyi wuñ mais dañoo aj te preuve baa ngi nii bi campagne jotee dem nañ battre ko a ah, bi nga xamante ne tamit dem voté jotee dem nañ voté ji bi résultat yi génnee parce ñun civisme dañ koy doxee di ko waxee te dañ koy tey te suñuy parti euh, def ci am loo xamante ne mooy valeur la ñuy incarné te valeur yooyu moo ñu topp ba nga xamante ne lépp loo xam ne nguur tëral na ko te mu dëppoog lu xel mën a nangu te mu dëppoog loo xamante ne du tax euh, peuple bi ne peuple boo xamante ne peuple opprimé la wala peuple oppressé euh, lii di le mouvement DMWM da ci daal di taxaw xar ci tànk tubayam ndax Pape Mor Lo sànq mu ngi koy wax ci anam bu am solo ci niñ doon amalee di université du Ramadan à colisée de l'éveil ci atum 1993 1994 nga xam ne tension dafa amoon mu nekk tension politique waaye itamit daf ci amaat yeneen changement yu am ba juddu tey jii nga xamante ne en 2020 2021 2000 2023 am ci ñoo xam ne dañ doon manifester ñu teg leen loxo bi ñu génnee li bari na te amaana li et di dund prison yi ci atum 93 94 mais li leen may nag tey loolu coow li bari mooy que ne dañu tellu ci média monde boo xamante ne euh, lépp digital la média bi tamit dafa gën a tuuru mën nañ ko waxee noonu waaye itamit ñu fàttali rek ne boobaak léegi amul mort d'homme alors que 94 93 mort d'homme amoon na Lamine lamin Lamine Samba moom bokkoon na ci euh, koo xamante ne daanaka fa la ñàkkee bakkanam

mais processus la boo xam dafa commencé mën nañ tudd sax depuis 2019 la commencé depuis 2019 PUR bokk na PUR bokk na ci ñi révolution boobu non parce que à partir de 2019 on parlait ci lañ commencé di wax des candidats anti système ñuy passif, Pastef di tudd PUR donc 2019 dem ñoom ñoo nekkoon espoir 2019 2024 24 aussi la même chose parce que nous ñaar aussi on fait face système bi fi nekk ba yàlla def li def donc loolu muy signifier ni euh, processus bobu noonu à chaque fois pur daf ci am place bu am importance nit ñi nak dañuy yaakaar ne cadre nombre la c'est vrai y a le nombre y a l'image mais aussi il y a un aspect beaucoup plus important moy quantité moy qualité parce que quantité baax na mais qualité moo ëpp solo te yàlla dafa dafa kii nii adduna noonu lay tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax wax nako bada ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada waaye fa tuba lil gharaba lil ghuraba loolu muy wone ni diine ci minorité de qualité lay lay andal, minorité de qualité bobu nak ku ci lu rek yalla mën na la ci bolé donc lolu mom motax Sénégal ba fiñu tollu ni ñepp mëna mën tudd espoir bo xamné amna wax dëgg yalla ki di Aliou Mamadou Dia taxaw ci aspect bobu non représenté ju lu am solo parce que ko xamné bayina ay privilège mépp ñew Sénégal amul kenn ku mëna taxaw ni Aliou Mamadou Dia amul xam amul kenn ku mëna taxaw ni amul compétence amul kenn ku mëna taxaw ni mënul yor réew donc lolu rek ça va minimum présenté wu na limu mu présenté mat na limu doon voté nak sénégalais yi wax dëgg yàlla ñoom tamit voté nañu li nga xam ne moo tal seen xel te loolu moo am solo et lu ñuy respecté la te lu ñuy rafetlu la yàlla na yàlla barkeel yàlla fexe ba ndam googu noonu ñëpp bokk mu doonal ndamal Sénégal yëpp ndax Sénégal bu jege ñëpp lay jegal parce que amoon na période bu fi tolloon yàlla xam na ni Serigne Moustapha bu waxoon benn baatam moustachid yëpp génn ci mbedd mi te bu boobaa leneen mën na xew waaye mu yëg ni réew mi dafa am koo xam ne defar moo ko gën a mu toog ni ko war a defaree mu defaree ko ko Euh, bal tàkkul lenn tàkkul donte nag wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne génn nañ ci mbedd mi aussi défendre seen liberté mu doon lu ñu respecté parce que loolu tamit ci démocratie la bokk am na loo xam ne bu amee nit ki génn joxe li mu am ngir objectif am daf ci am solo te sëñ Moustapha wax na ko sax ci 10 juin bi passé bi ko jiitu wax ni fayu moo am rek waaye fayu bu ëpp am rek mais fayu la parce que du ñu jàpp sa leader nga toog benn place waaye moom li ko yàlla suturaale ak li mu am ci Sénégal mu gëm ni am na loo xam ne mën na ci contribuer ci ni mu waree. mu def ko mu. Pape Mor comme ni ah. ko waxee rek euh, dafa mel ni euh, kilifa gi euh, am na ñoo xamante ne ñoo koy dalal. Eh. muy ee ee yi te commencé nañ déjà di génn mu mel ni Pape Mor yaakaar naa ne li nga. xam ne climat wu gàmmu la may jox. <laughs>

wàllu organisation Chabico bi nga xamne amna lu mu wone ci walu fonku xam-xam amna lu mu wone ci li yenenbi sallallahu alayhi wasallam jàngale won ni inna allaha jamilu yuhibbul jamal ñoo ngi fi nak fi nga xamni ay gan yu sell ay nit yu sell ay nit yu yiw ñoo jóge ci aduna ñoo fekk ci fi Seyd Cheikh mohammed mustafa si nga xamanteni tay mu nek guddi bu sell boo muy laylatul qadr le qadr bi nga xam ni alquran jàngal na ni mooy xayru min alfi shahr kon tey nii daal ñu xamal leen ni yéen ñu gis nañ fi ay kanam yo hamni ni soo leen xoolee nga xam bara barab bi nu ñëw xam nañ ni barabu leer la barab bi nu ñëw xam na ni barabu sàkku xam-xam la barab bi nu ñëw xam na ni barab la xam leen ni mën nañ si jëriñoo ba laylatul qadr ñëwaat barab bi nag fii ñu taxaw su ngeen xoolee daa gis ay soxna yu sell ngeen gis ay sang yu sell yu yiw yu nekk tamit sunu côté ndeyjoor loolu lan lay jàngale muy organisation bi nga xam ne sëy Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy organisé na ko daayiratu Moustarchidine wal Moustarchidaat waaye mu organisé ko tamit ba àdduna ku nekk suñuy gis boppam euh, barab bii nag tey euh, bi ñu taxawee fii dafa am loo xam ne dañ ko yàgg jàng ci téere yi ñu sentir ko ñu ne laylatul xadr su jotee ay julit suñu dajee dañuy yëg ni ñaar yi dafay nekk bi jiitu mooy as sakina muy nit yu ànd ak dal nit yoo xam ne dañuy yëg di fi nu ne barab bu sell la da nga koy sentir fii soo toogee am leneen loo xam ne dañ ko doon wax bisu laylatul xadr ku toog da loolu mooy at taqwa mooy ragal yàlla bi nga xam ne day feeñ ci ay jëf cër yi ñoom ñoo koy manifesté tey loolu ngay sentir fii maa ngi waxtaan na si suñu benn pàpp boo xam ne yàlla dogal na ñoom lu yàgg ànd ak sëñ Moustapha bi mu wootee yoo xam ne kii yàlla kese la woote ñu wuy ji ko ma nga toog papa bi fii lan nga yëg mu ne ma ñaar laa yëg yëg naa ni ki nu àndal moo jar àndal mu sëñ Moustapha Sy mu ne yëg naa ni ki nu àndal si yàlla la woo moo tax yëg naa yàlla ci barab bii ma toog loolu nag sant yàlla la kon soxna Binta euh, xam naa ni du yàgg sang bi agsi waaye li ñuy xamal ñëpp mooy barab bii daal dal ak teey ak ak bu mat sëkk ak ak moom la ñu yëg fii leneen tamit li nga xam ni mën nañ ko dolli ci li nu gis fii capitaux bi euh, comme ni ko waxee rek njaboot gi ñu ngi ku nekk ku nekk yaa bëgg a euh, ci guddi gi nga xamante ne amuñ ci benn yéene lu dul ànd ceeg euh, Serigne Mouhamadoul Moustapha Sy noonu itamit la ñuy wëyee rek ci plateau bi ñuy jaajëfal Souleymane Bari bu baax a baax ci li nga xamante ni indi na ko ci contribution jëmale ko ci guddi gu màgg gi waaye rek ñu dellu si waat euh, plateau bi ànd ak euh, Pape Morlo Pape Morlo comme niñ doon wax sànq ci transition bi nga xamante ni université du Ramadan. Euh, ni anam bi ko Serigne Moustapha daan amalee nga xamante ne ci Yoff mën nañ ne buñ naan université du Lamana commencé na rek responsable la ñuy takk seen valise koor gi la ñuy wax sax koor gi un mois nga xamante ne si terrain bi la ñuy nekk foofee ca Yoff Yoff tamit ñu tegoon fa structure bu doy waa boo xam ne daanaka waa Yoff yi dañ demoon ba dañ doon yàqam ci université du Ramadan am ba tax na itam biñ ko jëlee Yoff yóbbu jëlee ko Yoff yóbbu ko cité Alia Diène Serigne Moustapha woy ko di fa amal Euh, li nga xamante ne euh, conférence waaye itam di fa amale université du Ramadan daf ci am benn thème bu ñu marqué thème boo xamante ne daanaka mën nañ wax ne ci lu ñu gën a ci cours université du Ramadan yi ci la bokk dellu ci jeunesse conscience connaissance ñu amaloon ko ci atum 1900 ci atum 2015 Serigne Moustapha Sy indi ci ci jàngat boo xam ne jaare na ko ci montre jaare na ko ci battement du cœur jaare na ko ci nit euh, wàllum timis bi nga xamante ne lenn lu ci nekk mu jaarale fa ndaw bay wax naan sondeel bi nga xamante ne mooy tàkk donte ne lumière am foorul waaye tam fekkee mooy jëriñ société ba nañ ko ormal te bàyyi fa sondeel ba jaarale ñu ci tamit li nga xamante ne balaa muy tàkk faaw nga boyal ko saxaar dina la rey waaye bu sottee rek jural la njëriñ yooyu yëpp mu don ci préparer ndaw ñi don ci préparer ndaw ñi ñu ñëwaat ci enfance connaissance connaissance et conscience ci université du Ramadan. waaw euh, xam nga avant ñuy ñëw ci lolu dañuy gis ni Serigne Moustapha comme ni mako ko dafa jox ndaw ñi place bu am solo ci cadre ci mission am te bo seetloo sax ñi nga xamné ñom ñoom ñoo yanu mission jeunesse la jeunesse bi au début c'était en 1973 ba 1978. bi nga xam ne peut-être ci lay officiel da ngay gis ni moom déjà période boobu noonu nekkul woon nekkul woon nekkul woon euh, amul yoon yenn agi donc cinquante euh, cinquante soixante treize trente ans lay am ngay gis ni à chaque fois euh, mi ngi def loo xam ne yow mi nga xam ne yow yaa nekk ndaw soo ko suivre di nga xam fi ngay teg sa tànk te loolu la réussir ci durant daayira bi li muy am yëpp gis nga ndaw ñi Serigne Moustapha consacré na leen 1989 ak année de l'enfant année am ni moo am février 1989 même chose ak euh, ouverture bi ñu ngi ko defee stade boobu tamit ñu wax ko éducation mu wax ni ndaw kenn du ko yar mais dañ koy waajal mu yar boppam loolu moo ñëw ba université Ramadan

2015 2015 2014 2014 ci la lancé Mustapha junior 2015 nous jeunesse. nga gis jangale bi nga mom ci sëriñ jangale ci naka euh, yow ki nga yaay ndaw bi naka ngay ba kilifa al al kabit tudd naka jàngale ku añaane sa deewin ku añaane sa ndono sa deewin jekkati mu joxe exemple yonenti yàlla Daawud ak yonenti yàlla aadam gis nga enseignement boobu yor Serigne Moustapha jàngale ci ndaw ñi dafa dafa doon yoo xam ne dafay marqué ay empreinte indélébile la yoo xam ne au fil des années amul benn yoon ndaw buy toog di ko déglu te du ko jëriñ ci àdduna donc loolu ngay setlu ci processus bobu yëpp 2015 nak mu doon bu am importance wala bu ëpp bokk na ci ëpp importance ndax ñi doon def thème yi ci daara ji lañ bokkoon waaye encore ci jeunes yi lañ bokkoon jeunes yi ñoo doon intervenir jeunes yi ñoo doon ñoo doon def waxtaan yi on se rappelle ay médecins yu fa ñëwoon ay philosophes yu fa ñëwoon ñoom Habib Ndiaye ñi si lañ doon ubbilee ay ay ay ay waxtaan et cetera et cetera universitaires yi nga xam ne ñoo fa ñëwoon yëpp ci daayira bi la ñu bokk.

wute naa ña fay toog koo xam ne miinuñu ko te bu ñëwee jël micro wax ñaari baat ñetti baat ña fa nekkoon ñëpp taf seen gémmiñ daat ne xam-xam fu mu ko jëlee donc loolu muy signifier ni ndaw gi ndaw gi mën na yenu ndaw ñi looloo ñëw ba heure bi <laughs> moom mi nga xam ne peut-être mën nañu jàpp ndaw la ci âge mu fexe ba ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ak mag ñëpp ñëpp delluwaat ndaw <laughs> mu nekk seen capitaine nekk seen git nekk sunu kilifa yàlla na ko yàlla sàmm yàlla aar ko. yalla may ko mu motali ci jamm yalla musol ko ci ciat ak lammiñ yalla may ko mu motali yenem ci kilifam yalla may kilifam mu motali yenem ci mom ndax wax deug yalla lu nit don joy ci naka nga wara taxawé taxawee sa diggante ak sa kilifa jarul ngay sori xolal mam Cheikh Ahmed yane ci capitaine rek ci digënté ak Serigne mohammed El Moustapha si fi ci daara ji jang nañ fi faakihatu tulab ak li fi mam mawdo jangale ci cijahah murid tijaha waaye bu ñu xoolee di seetaan di gis di seetlu maam Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine ni mu taxawee ci digganteem ak kilifaam bu ñu jàngul woon faakixetu tulaab sax dinañ ko yëg ci moom te loolu moom am solo mooy fexe ba li ngay wax du doon kàddu kese waaye mu doon baat yoo xam ne dafay feeñ ba ci say jëf ba bu la ku la gis rek mu yëg ni mat nga li nga doon yàlla na ko yàlla sàmm. yàlla aar ko wax dëgg yàlla bëgguñu wax ji bari ci moom ndax <laughs> li olof naan làmmiñ dafa jar moytu mais yàlla na ko yàlla sàmm aar ko donc jeunesse conscience et connaissance boobu moo ci am beneen bi mooy thème central bi jeunesse conscience connaissance dafa am ñett yu ndaw war a gànnaayoo su bëggee jariñ ëllëg maam Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum wax ko ci yaa ayuhal awlaado ñu jàng ko ci euh, récréation yi weesu يا أيها الأولاد إن سموكم يزداد بالإخلاص والإنصاف أوصيكم بثلاثة من شأنها تسهيل سيركم إلى الأهداف أوصيكم بتأدب وتفكر وتعمق في البحث gis nga jeunesse conscience et connaissance ñetti aaya yooyu la àndal ndax lan moo tax bu ñu waxee connaissance tudd ta'addub tudd ta baxth ak tafakkur bu ñu waxee conscience ak jeunesse dinañ tudd ta'addub donc ndaw moom moom jàng ndaw moo moom recherche approfondie ndaw moo moom moo moom xóotal xam-xam ndaw moo moom yitte ñetti yi bu dajee ci ndaw ñu mën a compter ci moom parce que ñett yi moom la ñuy xaar ci moom loolu nag bu ko booleeg yor responsabilité boo xam ne dafa am kilifa ba ko war parce que tamit mën nga am xam-xam bu mën a doon ci àdduna mën nga wër loo mën ci àdduna waaye boo amul kilifa du jariñ dara seytaane wala iblis mi nga xam ne moom lañ naan iblisul laayin <laughs> ñun ñëpp di muslu ci iblis mais lan la liggéeyul ci digganteem ak borom waaye ba mu deful lu ci war rek da ngay gis ni kat wax dëgg yàlla. kon ñu xool euh, fii rek euh, Pape Mor ah. Lo ci fii ndaxte euh, li nga wax lu lu lu lu lu am la. Mhm. ci jàngat bi nga xamante ne kilifa gi jàngale nañu ko waaye mhm. itamit Pape Mor Lo Pape Mor Lo li ngay li nga soxla mu ngi fii mën nga ko xoo mën nga ko amee fii nii sax ndaxte kilifa gaa ngi noonu yaakaar naa muy Serigne Moustapha Sy ñu macha allah euh, ah. bi moom ñu bàyyi la rek nga nga nga <laughs> ah, wax dëgg yàlla kenn ñee ko war a wax fa ilayka fa rakibtu nahwaka dahra kulli ajibatin min hikmatin wa malihatil awdaani والشوق فيك وهمتي في رغبتي بمجاهل الآيات قد قاداني ما منطق إلا ودون تعقل ما عبرة إلا ودون بيان فتزودت نفسي بكل وديعة وبدائعي تبقى على الأزمان ورأيت أنك للرسالة حامل ورأيت أنك بعد سر أماني هذا نظامك في الكتاب مقدس قد كل غيرك عنه بالإتيان طبقته وفق الزمان وحكمه وعصمته بعناية وضمان kilifa gaa ngi noonu ah moom mi nga xam ne moom la ñu yaakaar moom mi nga xam ne moo yanu mission wu yonent bi ki nga xam ne moo révolutionné tariqa bi ki nga xam ne moo wane ni xam-xam du doon kaddu ki nga xam ne ni moo wane ni xam-xam du doon lu nit di wane nii kese waaye jëf la boo xam ne da nga koy jëf nit ñu topp la Cheikh Mouhamadinil Moustapha si mi nga xam ne moo contribuer concrétiser li nga xam ne mooy mission wu maam si Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moom mi nga xam ne moo mat njaboot moom mi nga xam ne moom maam Babacar Sy moom mi mat njaboot Seydi El Hadji Malick moom mi mat njaboot Cheikh Omar El Fouti moom mi nga xam ne moom mat njaboot Cheikh Mouhamadinil Ghali waaye mat njaboot Cheikh Ahmed Tidiane Chérifil Fatimi mat njaboot yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mat njaboot suñu borom parce que dañ ko koy gis nga xam ne innahu yata addabu maal xaq ki nga xam ne buy dox ënd du jóg buy dox jaww ji taxaw buy wax doo yëg teg ñàkk teggin buy waaxu nga yëg ni teggin baa ngi ci donc ñun kii la yaakaar tey nag gis nga ko mu ngi dalal euh, gan yi ñuy rafetlu li nga xamante ne moom nga euh, jël jagleel ko Serigne Mouhamadou Moustapha Sy ci ci biseem bi ci biir euh, chapiteau bi waaye ci nga xamante ne noonu la maye njaboot gi itamit ñu dundaat moomaay parce que ku ci nekk dafa am lu muy def ci yow ci diggante dox bi muy dox ba keroog muy dugg si ba agsi ci bërëbam comme ni nga ko waxee itamit def ci ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine mhm. ànd ci ak euh, Mame Babacar si mhm. ñu ñëw fas yéene saafonte ak euh, njaboot gi ñenn ci responsable yi imam Moussa Gueye ñu gis tamit tonton Cheikh euh, Meng wala imam Cheikh Meng waaye tamit président Alioune Mamadou Dia oustaz góor gi Baye Pène moom itamit ñoom ñëpp gis nga jiite tey ji dafa yor ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi ci politique bi yor ñoo xamante ne ñooy ay imam yor ñoo xamante itamit

moo la wan ne la ngay wax daf koy daal di daf koy daal ndax dafa doon mm-hmm. waaye itam daf ko matale mm-hmm. ndax sëñ Cheikh moo doon jàngale ne mm-hmm. ah ki nga xamante ne dafa war a yenn te yennuwul coono jooju rek jar na ki jar naa mu ki nga xamante ne dafa yennu yenn war na koo muñee coono joojee noonu ndaxte xool li ñu mel Serigne Cheikh Ahmada Tidiane Sy Al Maktoum noonu la ko doon defee Serigne Moustapha ci ay gàmmu ci ay jotaay yu ni mel coordination bi téyante loxo bi ba ci bërëb bi nga xamante ne foofu la njaboot yëpp toogee tey Serigne Cheikh Ahmada Tidiane Sy capitaine moom moo koy def ak Serigne Mouhamadou Moustapha Sy waaye tamit ànd ceeg euh, Mame Babacar Sy mu nekk loo xamante daanaka Serigne Cheikh la ñu am Serigne Moustapha ak Mame Babacar Sy Pape Mor Lo waaw xam nga sànq ko wax ورأيت أنك للرسالة حامل ورأيت أنك بعض سر أماني مام شيخ أحمد ديان سأل مكتوب دفا واخ شيخ أحمد ديان شريف الفاطمي ويت دو فتزود النفس بكل بديعة وبدائع تبقى على الأزمان دفا واخ لي شيخ أحمد ديان شريف يلا دوغال ناني مان مام شيخ أحمد ديان سأل مكتوب لوني ورونا بيك تي فيتو خم خم بيك ناو لوني ورونا ميتريزي تي كادر لوش ميتريزي ناكو lu ñu waroon a maîtriser ci enseignement maîtriser naa ko waaye ba ma demee xool yëpp daa xam ne wa annaka wa raaytu annaka li risalati xaamilun Cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy ku waxal yàlla xam ne raay naa bi annahu li risalati xaamilun ndax moom moomu moom moo yor risaala bi waaye wa raay naa bi annahu baadu sirru amaani parce que am na sirru boo xam ne nit du ko du ko du ko du ko manifester te nekk ko parce que ñoom mag am nañ fulla bu toll ni woote ci ñoom kilifteef wala nga woote ci ñoom benn daraja boo amul ñu wàccee la te wax dëgg yàlla moom mi wootewul daf ko nekk moo tax ba mu ko nekkee nag dafa normal dafa naturel mu nekk li mu doon c'est c'est très naturel de le voir aussi éduqué de le voir aussi beau ndeysaan xoolal complicité bi. <laughs> mu mel ni lu ni mel yàlla yàlla moo tëddee wallaay ndeysaan njaboot gi na nga njaboot gi. <laughs> kenn ku ci nekk yaa ngi wane sa contentement waaye itamit fierté bi nga am ci sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy doon sa sëriñ njaboot gi kenn ku ci nekk yaa ngi wane sa mbégte sa contentement ci. Euh, fierté bi nga am ci di mamche Ahmed Tidiane ci capitaine don sa capitaine comme niñ koy waxee waaye tamit mbégte la ñuy gis euh, sang bi ci anam euh, bu ñu mel ndaxte pap Morlo comme niñ ko waxé légui rek instant bi ni Moustarchidines yi ñii ñu ngi bég ñu ngi kontaan waaye dañuy fàttali rek né ci jotaay bi chaque instant est un moment de méditation et de contemplation de l'unicité de Dieu unicité de Dieu doonoon thème bo xamante ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Khutbul Maktoum daanaka bi mu ñëwaatee parce que tamit Serigne Cheikh toogoon na jékki-jékki retrait ci yenn ci conférence ci la demee woon France en 1995 ci la ñëwaatee Sénégal mais daanaka temam yëpp temam yëpp ci unicité de Dieu la ko daal di accentuer ba keroog muy ñëw commencé ah, gàmm gi duggal ñun nag ci ay thèmes ci ay thèmes ci ay thèmes wax la li nga xamante ne tey moom la ñuy dundaat ci biir Sarr. ah jagleel ko Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine jagleel ko itamit Serigne Mouhamadul Moustapha Sy ak euh, njaboot gi li nga xamante ne moom lañ nekk di jël ni njaboot gi namoon nañ ko trop booy xool rek moom tamit nga xam ne namoon na njaboot gi yàlla xam na ko weeru koor gépp kenn collégé wul kenn université rawadaawul wax dëgg yàlla métti woon na trop nag campagne yi neex na waaye métti woon na wax dëgg yàlla ñëw gis ko rek beneen mbégte lay doon wax dëgg yàlla nga xam ne rek di ko ñaanal rek yàlla ko yàlla may wér yaram yàlla may ko gudd fan yàlla may ko mu ñuy gunge di fi nekk di ñu ñu jàppale ci mission yi yàlla ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla aar musal ko ci bépp pexem noonu waaw ah, kay Pape dafa mel ni waxtu bi jot na parce que mise en place vingt la woon vingt une heures waroon yëf waroon tàmbali ñu bàyyi la rek nga clôturer ñu soog a dugg ci saal bi ak kilifa kilifa gi plateau bi <laughs> plateau bi <laughs> plateau bi sax am na clôture nañu bàyyi góor gi rek ah l'essentiel mooy yàlla nañu yàlla may ñu ko jar xol bu ubbeeku ñu déglu ko dégg ko jëfee ko yàlla nañu yàlla may xolu nangu ak xolu bëgg-bëgg nangu. yàlla na yàlla nangu ñaan yi ñu teewlu kilifa gi ak li xew ci biir salle bi yëpp ñu ngi ñëwaat ak yéen. di leen euh, bàyyi rek ñu suivre li ci biir salle bi ak euh, sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy maam Cheikh capitaine ak mboolem euh, ñi chargé li nga xamante ne mooy programme tey الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله كنديغلو سرينبي سيدي ومولاي الشيخ سيدي محمد المصطفى سي جاري لكو تي كابيتان ني جانغ فاتحة جانغ جروم نياتي سورة قريش آية الكرسي فلخي أجناسي صلاة الفاتحة ني تيجيكو جاتاي إن شاء الله amin incha allah xam naa dañuy tijji jox capitaine mu tijjil sëriñ bi tudd rek gan ñi nga xam ne teew nañ fi ci guddi laylatul qadr bi nga xam ne nii moom la ñuy def ci teewaayu fadilatu cheikh mouhamad al moustapha si xafizahu llahu wa ayadahu wa raa laylatul xadr moom daf ñu jàngal ne am na ñoo xam ne guddi gu ne laylatul xadr la ci ñoom waaye xëy na léeg-léeg ñu def ko pour symbole waaye guddi gu ne laylatul xadr la ci ñoom ñu teew fii ci barab bu tedd bii di ko ndokkale ci weeru koor bi di ko ndokkale ci guddig laylatul xadr gi di def ci moom ziyaarata barrukin daat bu fekkee li dellu ci list yi ñi fi teew ci ay autorité ak i kilifa dañ ciy jiital tabaarakallahu njabootu boppam maam Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine nga xam ne moo koy tijjil teg ci maam Babacar si Pape Cheikh Sarr soxna ummu si soxna fatima si teg ci suñu yaayu daara ak euh, sëriñ géy bu soxna ki ne duudu teg ci maam xalifa saar teg ci famille soxna indu dem ci njiitalu soxna umu béy teg ci président Aliou Dia suñu candidat bi toog imam Cheikh Tidiane Mbeng tabarakallahu mi ngi ni toog imam Moussa Gueye imaam Cheikh Ahmed Tidiane Niang Serigne Babacar Gaye bu soxna Fatima Si moom teew na ci jataay bi waaw sëñ Moustapha Gaye bu soxna Fatima moomit it mi ngi ci jataay bi tabaarakallaahu bu dee ci famille religieuse yi ba tey sëriñ Babacar Cissé di porte parole bu jaamal moom ñëw na ci laylatul qadr bi sëriñ Babacar Kanji bu fami Cerno Kanji ca Jurbel moom teew na ci jataay bi sëriñ abu Aboubacarine Dia bu góor gi Ousmane Dia bu Tiwaawan moomit mi ngi ci jataay bi sëriñ saaliwu Dia bu Njar moom mi ngi ci jataay bi Pape Habib Gaye di suñu baayu daara moomit mi ngi ci jataay bi El Hadji Jaara Njaay bu Njare Wàqi moom mi ngi ci jataay bi sëriñ Moor Njaay Xaqiqa moom it teew ànd ak way juróom wu jigéen ànd ak ay frère am mi ngi ci jataay bi oustaz Modou Fall tabarakallahu di wëllëri ci góor gi moom mi ngi ci jataay bi sëñ Mansour Diop di journaliste di njaboot ci góor gi moom mi ngi ci jataay bi maam Cheikh Diop bi nga xam ne moo jiite Maktoum Prod moom mi ngi ci jataay bi bu delloo ci wàllu parti bi bi ñu tuddee Aliou ja ñu tudd Cheikh Tidiane Youm la secrétaire général tudd doyen Cheikh Tidiane Ndiaye tudd député yi nga xam ne nii ñooy député pur yi ñoom ñëpp ñu ngi ci jataay bi ak kilifa yi nga xam ne nii ñoom ñoo ŋànk daayira bi ñoom ñëpp di ci ay responsable di ay pair di ay maire di ay asatisa ñoom ñëpp ñëw nañ teew ci jataay bi di ñaan yàlla mu may ñu samaan wa taatan wa kullu aamin wa antum bi xayr wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon ñu jox capitaine mu tijjil góor gi incha allah. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen ziar di leen baalu te di leen baal di leen ndokkeel ci weer wi di leen ndokkeel ci bés bi ah bés bi it am boroom muy boroom xol yi di boroom xel yi di boroom ruux yi lu yàlla def ba pare la kenn mënu ci dara ah jaaduwul sax kàddu gi di gudd waaye njaboot ndigal jëfe ah mu mel ni nag dafa am loo xam ne moom daf ñu ko mës jàngal mu newoon ñu moom ci góoram gi la ko jëlee woon mu newoon ko ko xamni ni liggey giiru dundu la amna yu ñeneen di xëccio yow do ko xëccio motax ñu nit ci lool la fonctionner xeyna yi fi jaar bëri na wax yi bëri na werante yi bëri na waaye ñun suñuy programme dafa am fu mu aju fekk loolu changé wul suñu programme du changé ah yàlla ngi def sutura ñu am proposition yu ñu ko defaloon ci cadre organisation ci cadre programme moom mu jox ñu ci ndigal moo ñu nag bu ñu jëlee kàddu ñu waxaale leen ko ndax yàlla dafa def ren polise waroon na am waaye ma xamit ni am na farata gu taxaw te mooy budul dara am na ñoo xam ni fa ñu dëkk sore na lool te lu ñu xew lañu suivre comme ñun kon nag jot na ñu nit ñu seeti leen noo seulement amaaleeg ñoom colisée gi waaye lépp luy programme ak organisation bu bees ñu joxale leen ko directement ñoo ngi ñëw ndax it yaakaar naa fii lañ ko waxtaane woon ci benn réunion ku ne njaboot nga ne am nga cofeel dafa am loo war a moytu ndax jot jot ci cofeel te jaaroo ci tarbiya sànku xaj na ci jot ci cofeel te jaaroo ci tarbiya sànku xaj na ci tarbiya yi du num la neexee nga koy doxale du sa bëgg-bëgg ci aju déedéet dafa am ay règle ak ay loi yu ko régir kon nak du ko mu neex rek nga doxale nu la neex du du du participation conditionnelle du problème de préférence principe de fonctionnement la dang ci nga bok adhéré wo ci nga xooli fo jëm yooyu yëpp incha allah bu ñu ñëwee daañ ci waxtaan ak yéen ci mbaaxu yàlla dañuy bañ di guddal waaye ndigal ndigal lu tudd incha allah yooyu yëpp bu jotee dañ ko dund ak yéen ci mbaaxu yàlla kon nag ah ñu bàyyi kàddu koo xam ne silence am silence am defar naw jamono kàddoom kàddoom bégal na asamaan bégal na suuf kon nag bu ma guddalee ñu merama asalaamaaleykum wa rahmatullah السلام عليكم تبارك الله من نيو نيان sax li amoon solo moo di sunu gan ñi nekk te oustaz Cheikh tudd leen wa tabarakallahu ñu di leen nuyu di leen dalal jàmm di leen wax itam dañ leen daan wax rek fii ku yàlla yitteel ak yonent bi fi nga bokk waaw nag boo fi xasee ba ñëw mën nga jàpp ni sa kër nga ñëw wa am na ñu daan ñëw am ci ñu nga xam itam yàlla ngi dogal sunu kóllëre ak ñoom ci événement yi passé ci la ko dogal ñu ñaanoon ñu boole leen ci ñiy teew te oustaz Cheikh tudd na leen mel ñoom ustaad léeg-léeg ma tooñ ko sax ma ni xawma ci moom laa war a jàngeen nu ñuy solee jàllaaba walla déet ndax léeg-léeg ma gis ko ci yenn émission yi

xam naa baatum Mamadou la ñu gën miin Alioune Mamadou Dia waaw mu ngi ànd ak imam Cheikh Mbengue mu daan ko wéttali ci yëpp ah tabarakallahu seen bokki bopp yi ñu daan àndal jamono bu nekk ñoom ñëpp ñu ngi fi mu mel ni itam ci wàllu famille oustaz tudd na capitaine ak délégation yi topp ci gannaawam tudd na góor ñi tudd na jigéen ñi mu mel ni ñoo ko moomal seen bopp ñun di leen wéttali rekk moo ñu fi indi comme ni mu ko waxee nag dañu miinoon bu koor jotee moom mu organiser li ñoo tuddee colisée jagleel ko Moustarchidine junior yi mag ñi di leen wéttali ñu organiser université du Ramadan yàlla dogal ren mu coïncider ak événement politique yi te ñu xam ci njaboot di xër gu nga xam ni bëgguñu wuute fii bëgguñu wuute fële te kom lii du jeex dund gi yépp mën nañ ko di def waaye lële dafa am calendrier bu weesoo weesu na waaw moo taxoon ma d'accord ak moom ci ñu reporter événement yi bàyyi ba ñu ba noppi te dégg ci moom mu wax leen tourné yi nga xam na ko amal ay tourné yu nga information ak orientation تبارك الله نعم نعم, نعم. بجمونو بنيو عندو نك نعم تجنو لنيو توق وتبارك الله سنتي الله أولا وآخرا ndax dama waxoon ca sunu clôture meeting ba woon ca ba koo xam ni sag yi nit di wut yépp yàlla defal na la ko te sa kilifa seetaanu la doy na sëkk li ci des yépp wis la rekk waaye itam léeg-léeg am lu xew doo seetaan sa mbokk ndax góore gi dafa mës a wax wax bu am solo ci li sunu boroom wax ci alquran فاستبقوا الخيرات góor gi firi ko ni na ngeen rawante rawante yiw mu ni rawante yiw mooy rawante bi nga bëggul kenn raw la ki nga ko bëgg nga ko ndax yàlla mi ngeen séq ba boo sañoon doo ko raw loo tax dara dina ñëw nga am possibilité yu bare waaye nga bàyyi mu jàll ndax xam ni ki nga ko séqal yàgg moom yéen bokk lépp waaw mu mel ni nag sa yaati yowum am na ñu nga xam ni seen bés a ngi ñëw te soreewul incha allah e, bisu tey bi bisu barkeelu rekk la am na def laylatul qadr ci semaine bi ñu génn am na def laylatul qadr béeg ci guddi am na ñoo xam ni ñook ñun tey la ñu def laylatul qadr keneen noonu keneen noonu mais question bi ñuy posé mooy lu ciy sunu yoon daaw wax naa leen leylatu qadril quraan wax leen it leylatu qadril ibaad waa ren nag ndax am naa lu ma leen di wax rawatina dama xawoon chargé aw ma woon temps wu bind yàlla xam na ko maa koy wax cheikh mii ma ne ko xanaa bu ma demee ma wax capitaine bo bu sànnee ñetti baat rekk yóbbaale ma waaw ndaxit dama xamatul lu ma leen di wax te it jàngal jàngal koo rawul lu mat a bàyyi xel la ñun rawuñu leen waaw kon nag da ngeen baax di ñu déglu rekk yàlla na yàgg te yàlla yokk suuture yi mu mel ni nag wax yi dafa bare ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر ليلة موسي صح دانيو ليلة القدر ndax toppandoo sénégal yi léppam toppandoo la mu des nag ليلة القدر بتخنو دجينون ندير بركة لكي وجه القرآن اسك موي ليلة القدر بالقرآن شي بابم دي فيتي anniversaire parce que alquran ci boppam dafay feete anniversaire u boppam te bu jotee mu invité à suxufu al ula suxufi ibrahim wa muusa bu jotee itam mu invité à zabour invité à Taurat, invité à l'Injil. ci bir loolu itam mu partagé ak ñoom gâteau, bi anniversaire bi mais bëggoon naa laaj oustaz yi fi toog gâteau anniversaire bi lu muy doon waaw waaye mu mel ni baatu tawil mooy gâteau anniversaire bi waaw thème bi ñu ko tànnal ren nag te mooy innama yaxsha allah min ibadihi al ulama ulama bi yàlla tudd ci alquran boobu ban ulama la est-ce que mooy borom xam-xam yi jàng téere yi wala lan la jote ak al ulama warathatu al anbiya bële yonent bi ko wax al ulama warathatu al anbiya donc borom xam-xam yi jàng téré yi ba tëj téré yi bu len nexé ñu ni ñoo donu yonenti mais innama yakhsha allah min ibadihi al ulama yàlla ngi koy wax jublu ci al asmaul husna yàlla asmaa yi la wax ni du ñu weranteeg moom ndax bàyyi ko xel doo wax ni ragal sax parce que xam gi ñu xam yàlla ragal amu fa mais bàyyi giñ ko bàyyi xel ba du ñu werante ak moom looloo tax bu dee xam-xam dëgg asma yooyu ñoo ko am لونوي تخنك القرآن تنبو دي فتي أنيفرسير بي دف دي نياري نيفو يو القرآن المنزل على الألسنة ولا داف كيفيه تكو في القران المنزل على الافئده بس نياري القران يو مو ام القران بي يلا واتي مو نيك تكس ني ديكو جانغ نيب ديكو ديكو bokkul ak alquran bi nga xam ni carte d'identité biométrique la carte d'identité bio biorythmique boobu ci xalbul malakut lay jóge waaw جبريل دم جلكو بور اسكانيكو اسكانيكو كي خلو ينتبه نزل به الروح الأمين على قلبك ودي القرآن المنزل نك على الألسنة كي الملك جلن كوي جلي متاح بلسان عربي مبين مدس نك لانغبي لوتاخ مو نيك لغه العرب مانا نيون نيوي لغه العرب يالا دو تودو باتو لغه لسانا بلسان عربي مبين جي لون في ووت Ce qui veut dire que d'où langue comme toutes les autres langues. parce que li ci góor gi wax ni yàlla bi muy wàcce alquran daf ko bëggoon wàcce ci langue bu nga xam ni lu ëpp ci langue ba jawhar la te mu gis ni ameewu ko lu ci langue arab ndax 80% ci langue bi yeb jawhar la 20% yi rek mo nek madda donc madda bi moy matière bi jawhar bi moy anti antimatière bi arab li ëpp ci ci waxam ay anti antimatière la motax jàng kesse kesse ni di tari rek taxul nga deg lu xew waaw moo tax ñu mel ni ñoom Seydina Cheikh seen mbir yéeme ndax baatu jawahirul maani waaw lu tax Cheikh tudd ko te moo di yi nit ñi di werante la ca réer nit ñi te xamuñu lan la parce que antimatière la moom la Cheikh jëli tënk ko ci téere bi moo tax nag am na ñuy demander pour dem participer ci débat bi alquran di invité waaye boo bëggee participer ci débat bi da ngay génn cadre iqra dem ci allama alquran xalaqa al insan allamahu albayan ndaa Iliman na yu fi sax di dem ci sen chaîne télévision di la dama koy yërem ba fan yi passé mang koy suivre vers 3 heures du matin ndeysaan gis nga bayaan bi dëgg-dëgg buñ ko doon firi ci wolof rekk am na benn émission bu ñoo boo xam ni journaliste bi ñoo tuddee Pape Ngagne Ndiaye moo koy def ca TFM ñu tudde ko faram fàcce waaw bayaan bi mooy faramfàcce boobu parce que téere yi ci des yëpp muy tawrat muy injil dañuy soxla ñu defal leen mise à jour kenn du leen bàyyi noonu foog ñuy discuter di ko réactualiser parce que am na ñu leen gëm ba tey am na ñu gëm tawraat ba tey أمن نجم إنجيل بتي تبقى لك نجم القرآن متعب بيان بوبله خلق الإنسان علمه البيان سري سنو برام لا تموتي سيد القرآن ndax boobu yonent bi ñëwagul mu sedd ci poète yi ba tab ba pare moo tax poète yi ñu daan leen tudde ashuaraul jaahili daan wax lu kenn xamul fuñ ko jële imruul qays jaar fii nabigatu dubyaani jaar fële zuhayr bnu abi salma jaar fële ku nekk ak logique bi muy waxee mais lu tax ñu tudde leen al shuharaawul jaahiliya naka ngay waxee lu toll noonu boo ma noppi te sa peuple yépp réer parce que langue bi ñu utiliser ñoom amul jawhar matière kese la amul anti matière moo tax boo seetloo jigéen lañ cay tag, sàngara lañ cay tag, fas lañ cay tag, jaasi lañ cay tagg ay maam yu xamul seen bopp lañ cay tagg bind ci lu ne te teewul seen époque nekk ay jaahiliya motax yàlla sunu borom comme may na len li ñu tudd sexrul bayaan ñoom ñu ci basé pour def sen poésie bi yonent bi ñewé sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni poète yooyu dañ ko xaw impressionné ba mu doon yéene ci xolam pour nekk poète yàlla ni ko mënul nekk wa ma allamnaahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu waaw wan ko ni ko duma ko jàngal poésie ndax poésie dafa dellu ci saxarul bayaan te moom liñ ko yónnee ci xaqul bayaan fa la dellu ndax ku mësula jàng dara ñu ni danga nekk ku analfabet te li nga wax yépp boroom xam-xam yi di ubbi lu ne pour mën ko firi booba fa ngay jële feneen la waaw loolooy tax donc taawil bi fi la wax ji nekk koo gis mu raw la ci jamono bi rekk yàlla daf ko baaxe ci tawil waaw ñu bare nag tafsirul quran tafsirul quran télé yaa ngi fees dal benn desul ku ci nekk nag di won morom bi maa la ko dàq xam naa ni moom tailleur yi am nañu occasion bu rëy ndax lii broderie ci réew mi kenn xamul nu mu toll waaw ku nekk ngay jéem a séduire ña mu toogal di yuuxu di tàllal loxo rek waaw dugal ma ci buntu boobu waaw waxal ma ca Amina waxal ma ca Abdoulaye bu ko defee yëf yi def lay reeloo sax waaye nag ku nekk ak la nga am Ndeysaan mu mel ni li tax ñu di la wax tawil te góor gi joxe won ci benn exemple mooy lu tax bi Abraha jógee te ni day mam si kaaba gi لوتاخ يالا يبال بريغاد بي مو يبال بريغاد بي اي بيتي لا نيو لين دي تودي مي فك اي سولدا لا نيو تي سيكوريتي بي لا نيو بوك موتاخ مو يوني لين طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل wax leen ñoom malaaka yi ñu jël ban bi ñu bindee nit defar ci ay munition jox ko picc yooyu te munition bu ci ne turu boroom nga ca donc ñu écrasé ñi àndoon ak Abraha ak léppam mais lu tax bi xajjaaj jële décision moom itam pour màbb kaaba gi te màbb na ko lu tax yàlla puniru ko lu tax yàlla détruiru ko ñu ni lenn dong moo ko may chance mooy taawil tawil bi moy lan am na ñu dégg ni ku dugg ci biir kaaba gi raw nga ak lu mën a def déli boo mën a def raw nga ba noppi xajjaaj nag def tawil yëg ni bu ñu bàyyee loolu mu wéy ku jóg di nga tooñ dem làqu ji ci kaaba gi donc il fallait que mu màbb kaaba gi pour wan ñooñu ni len loi mo fi baye kaaba gi kon ku violer loi bi ñu màbb kaaba gi parce que dañ koy tabaxat rek waaw donc taawil bobu fofu mu ko wéer li mu tëdd ci jawhar moo tax yàlla pardonné ko mooy façon bi mu waxe xam nga sëriñ Cheikh waxam dof waru ko di déglu parce que waxuma la li mu li mu xam mais audace parce que nitu yàlla yi dëgg-dëgg ci seen audace nga koy xamee waaye li mu wax ni ku yaakaar yonent bi bu la neexee nga lekk riba ndax jamono bi jamono riba la boo nee doo ko lekk dinga nga torox mais ci taawil mu ni ci Maodo la jóge moo waxoon ab daruraatu tubixul maxduraat boo naree loru may nañu la li ñu tere nga jëfandikoo ko ndax nga bañ loru waaw mu ni moo tax Maodo yu bari daan na ci autoriser nit teg ko ci xadiisu yonent bi loolu mooy tax budul tawil taawil njaxas mi dafay bare même en matière politique boo teeyul rek mën nga jaxase yu bokkul maanaam li góor gi doon wax ni réew mi nañ ko sànga

أكي خبيثين أكي خبيثون أكي خبيثات ñoo yore politique bi fokk politique ba dafay am janaaba te bu Senghor am na ko bu Abdou Diouf am na ko bu Ablaye Wade am na ko bu Macky Sall on n'en parle même pas donc il fallait que ñu sang réew mi ci janaaba bi ba tayyibaat yeeg tayyibiina yi ak tayyibuuna yeeg tayyibaat yi yor yëf yi moo ñu tax a dugg ci biir élection ñun ñu jël pur ma jox ko sama mbokk mii di Ali Mamadou Dia mu doxal ca la mu ca war a doxal yépp ñi ko bokkal yépp jàpp ca ku ne wa tabarakallahu ba ci capitaine en dernière minute mënu ba duma bëgg a dem fekk ci ndax pour ñu gën ko appuyer ma ni ko farata Je l'ai demain rejoindre les. motax nak sang rew ndox du ko def méthode la mais méthode bi aussi bu ci kaddu yalla dugul jarul nga ciy sonu waaw motax biñu fi jógee góor gi wéy ji gis na nit ñu bari di ci wax ku ne naan waaw léegi kon nu ñuy def pour sang réew mi ma dégg oustaz Alioune Sall ni dem leen ci sëriñ Moustapha mais bu ñu ñëwoon ci manit duma ko sang parce que ki ko war a sang mooy ki ko tudd te dem na xam nga sa kilifa dina wax kàddu nga fas yéene bu kàddu ga guddee àll it du fa fanaan loolu moo ñuy dal ñun ci sunu kilifa kàddoom na na guddee àll waaye du fa fanaan mu ngi fi ba tey nag dama dugg oto dugg ak ay bokki responsable lu bi ma à sama hôtel Paris jëm aéroport Charles de Gaulle pour ñibbi Dakar ci biir oto kenn ci mbokk responsable yi ni ma dama la bëggoon yóbbante ci góor gi ma ni ko lu mel nan mu ni ma dama dégg ñu ni Sëriñ Babacar dafa waxoon ni ëllëg lu mu xat-xat am na ñoo xam ni dina layoog ñoom ci kanamu Maodo mbokk mi ni ma tam man dégg naa sama baay ci la bokkoon tant que moustarchid nag te gëwma lu cheikh ma bëggoon nga ñaanal ma ko pour ñu pardonner ya sama baay ma ko allah bu ma ko gisee wax ko ma Senegal, am audience segurki, gi ma wax ko yobante bi ak li mbok mi ñaan mu ni tek ba ci yag mu ni ma mu ma ni ko labbayka mu ni ma du yomb nag mu ni ma ndax serigne babakar mi ko wax nitu yàlla bir la mu ni ma ba ca teggu itam moy dem na barsax ba nopi te mënul dem barsax may jël décision bu tollu nonu te né négocié ko ak moom kon nag jarul mu tas yaakaaram waaye xanaa bu ma gisee sëriñ Babacar ma négocié ak moom pour wax la waxu xaqiqa du lu ñuy kafe waaw moo mag ñi lepp lu wax bo dañuy am souci ndax ñeewante gañ lay ñeewante ndax décision bi lay condamné du jóge ci ñoom feneen lay jóge te bu jur sañoon duñ la condamné te trois jours rek lañ lay may moo tax ñoom ci seen bopp sax daf leen di dal am na ci bu nga xam bi mu jëlee décision bi gannaaw la mais comme négocier ko ak ba def ko ba noppi mu jur la mu jur dafa dem ci pour demander le pardon فاصفح بفضلك واعف عني غفلتي وغفلتي بشرابها المسموم أنت الكريم وفخر كل كريم ومن اللئيم لديه شر لئيم خالفت أمرك والخلاف جهنم ونقدت رأيك نقد كل حكيم فوجدته وحيا لكل موفق ووجدته حكما لكل عليم دم تا بامل با بور دوماندي باردون لولو موي تاخ حقيقه دفاي يومبول sunu mbokk mile sëriñ Moro Njaay te yore xaqiqa noonu la ko tuddee gis na vidéo yi mu def yépp ci taw événement yi li mu jële ci kilifaam itam te mooy seydinal imaam المهدي لم يبنت تم جار لكو تي سيتم من دنج ما يوني فيديو بي ما خولكو بي كي وقتانيه am beneen responsable bu ma wax ni man day gént naa lu nga xam ne soreewul ak li moor ma ni ko ci lu mel na mu ne ma dama gént mu mel ni asamaan si dañ ko wàcce ba mu tolloog boppu nit ñi ni ma gis géej gi mu daw dawa dawa daw ba sore li ci ëpp yëpp nekk plage mu ni ma gis la yow yaa ngee doxantu ci plage bi nis tuut ma gis Seydina Imam moom muy jóge moom it delloo ko côté mu ni muy ñëw yow it ngay dem bi ngeen ñëwee bay daje nee na mu jël loxo mu lëng la bi mu la lëngee nag ségg sëgg na am lu mu la deey waaye la mu la deey nag yéen ñaar rekk xam mbokk mi ne ma kon nag loolu moor wax am na firnde waaye fekk na loolu góor gi waxoon ci seen daairatul ixaata te mooy kilifa gu ne ñu may la nga def sa tariqa bopp waaye ba ñu ci jógee nag yonent bi ñaan leen ñoom ñooñu ñu def benn tariqa bu nga xam ne ñoom ñooñu yëpp ñoom chef yi ñoo koy bokk di fa dajeek yonent bi di waxtaane mbiru jullit yi mu ni waaye di fa toog gis benn kilifa bu tudd njaboot bu bokk ci beneen kilifa ni yonent bi sallallahu alayhi wa diw de te njabootu keneen la diw de bu ma sañoon ñu defal ko shahada te du njabootam moom njabootu beneen kilifa la mu ni yonent bi bu ma sañoon nga defal ko shahada yonent bi ni d'accord ñu indi mu daal bind pour defal kooku shahada waaw mu lay xamal ni kenn ku ne man nga gëm la nga gëm bokk fa nga bokk te du tere bu la yàlla wanee leneen feneen bu tisa xaqiqa yeggee nga nangu ko ni ngay nangoo sa kilifa صدقت كل ولي الله راعيا قدرهم بعين احترامي du mawdo ko waxoon waaw ni képp ku yàlla am ñu di la tudde waliyoo nangul na la sa cër te maa ngi lay ormaal ndax li la yàlla sédd loolu mooy tax du tere ku lu sut nga ne ko njool mi laylatul qadr kon خير من ألف شهر واو فكني بن قدي بي مو جن جني وير كن من نيو جمني يننتي بي مو جن جني يننتي من نيو گم القران بن تيري بي مو گن جن تيري مو خم يو يلا مو خم يو والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجرة دون جيم دغلو فاني صح فيري كاتي داما نعم، جانغي شي نيوم فيري بي واي دغوما لوما خام واو يا كونيك كيف فاصون بموي وخي fekk sunu borom mooy géej wal fajr maa ngi giñ ci fajar ji nga xam ni ca la jant di tàggoo yóbbal ak penku fas yéene di fenke soow bis bu jant demee ba tàggoog penku dootu fa fenke lu dul di fenke ci soowu nag bu ko defee nga xam ni àdduna jël nay bagage pour dem wa layaalin ashr maa ngi diiñ ca bés ba nga xam ni fukki yëg-yëgu nit danañu sangoo lëndëm ci biir bàmmeel fukki yëg-yëgu nit mooy cinq sens yi ak cinq ya mu àndal xool gis noppu déglu bakkan xeeñu xet làmmiñ saf macc mu saf waaw loxo làmb daj fukk yooyu yépp bés dana ñëw yépp na teg ci biir lëndëmu bàmmeel dara du yëngu waaw yàlla giñaat ci boobu giñaat ci bu ñetteel bi wa shafai maa ngi giñ ca guddi ga roox bi di gunge yaram bi te di ko ñeewant ba ñu yegg ci buntu bàmmeel mu bàyyi ko fa soog a dem moom rekk wal witri soog a ñëw لك والليل إذا يسري waaw maa ngi jiñ ca fajar ja nga xam ni guddi àdduna دي commencé di yoxoosu di jël place am waaw yàlla nee ngi giñ ci ma di leen laaj ndax jar هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد دوح لإكزامبلي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب قلنا إن ربك لبالمرصاد مي بابو نيخول خامولو بي نيخ موي لما لين واخ تي ميتين دا كلوتور فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني لأني باكو تفك باكو tena واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني نادي سالد تفك سالد تلنا yàlla ni leen kalla bàkku teel na saali teel na da ngeen a seen occasion waaw ñu ni ko occasion yi yan la mu ne la al orphelin bi amatul ndey amatul bàyyi lañ ko bàyyil mu war koo dundal nga wuti pexe pour féetale ko sa bopp taakuluuna turaasa aklan lamman miskin bi amul kàttan nga war ko fekk fa mu nekk dolli ko kàttan nga fekk alal ja nga ko war a kàttanale nga buub ko yëpp yóbbu sa kër wa tuhibbuna almala hubban jamman kalla ida dukkat alardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka walmalaku saffan safan bu boobaa les sept sages conseil constitutionnel mooy wa jaa almalaku safan saffan وجيء yawmaidin bi jahannam ñu indi recalé yépp yawmaidin yatadakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra يقول يا ليتني قدمت لحياتي ak neexoon ma teel a wut parrainage ويومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد قلنا يا ايتها النفس المطمئنه horizontality بي دادي نيو بيلوتاج اسيستي لاي دون ولا ديت C'est très important. góor gi moo ko jàngaloon xale yi waaw waaw est-ce que horizontalité bi lay doon waaw Ou wala proximité bi lay doon parce que bu fekkee ni horizontalité bi la te comme d'accord na ci pilotage assisté lay doon donc foog mu am pilote ak copilote te bu boobaa al zaman wal makan le temps et l'espace ñoy nek pilote be copilote bi te ñom ñaar duñu juboo moo yalla yàlla daf lay ñaan nga bayyi fi yoy yëpp jël proximité bi dem jël an nafsul mutmainna mu nekk avion sans pilote nga xam ni bu ñu programmer mémoire am rek ni ko irjii ila rabbiki radiyatan mardiya waaw avion bi di nga ci dugg mooy piloter boppam yóbbu la ba benn escale ngani lu may def fi ñu ni yàlla mo ni nañu len dajale waaw yéen yi nga xamni valider nañu sen candidature yàlla mo ni na len dajale fi ndax fokk mu gis len bala ngeen di dugg al janna kon nak fatkhuli fi ibadi ndax partage bi

benn baat ñaari baat ñetti baat rek ñu di ko bége di xam lu ci nekk rek li muy jariñ lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fatu bis nekk leen fàttu rek alquran ñoo fëgg ko mu jóg ubbi muy alquran mu ni ko lu xew mu ni ko dama lay indil séet ñu ko siitu lan mu ni ko guddi la tudd guddi guddi rek la tudd waaw ah, yonent bi daal Quraan comme siit bi daf ma bett te jotuma ko toggal reer loo defe ni moom laa ko war a wutal reer mun ko war a tileel qur'aana tartiila kon nag qumi illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattil alqur'ana tartila waaw looloo tax ngeen seetloo ci gàmmu yële passé ma di leen wax ni guddi yi ñoo tudd yëpp ci wàllu diine guddi yëpp dañu yàkkamti woon guddi juddu yonent bi ñëw ndax itam ci la yége seen bopp waaw ci la ñuy itam mën a marché ci règle yu bees yi tëdd parce que yàlla yi mu bind yépp de nuit changer 24 heures sur 24. Changement ma yo travail c'est l'eau. Je suis que pour demain, Grande-Bretagne? Nous allons à Londres, nous allons le Palais Royal am na fa ku nga xam ni liggéeyam ci palais bi yëpp horloge yi nekk ci biir palais bi horloge bu ne dina ci ñëw ci yow seet ndax am nga une minute wala am nga avance une minute mu delloo la ci waxtu bi normal motax mag ñi ñu am benn horloge horloge bi boo ko xoolee amul chiffre amul aiguille lan moo nekk ci horloge bi muy inna saata la atiyatun لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون امين جم مونتر مي وقت يوم لي ييغال نيول سي مونتر تيالا نينا موغي سي يون وي دي mais li lay jaaxal mooy aaya bi boo ko déchiffré ñaar fukki xaraf la ak ñent mu représenter 24 heures yi nga xamni kon defuñu ko ci hasard إن الساعة لآتية لا ريب فيها walakinna akthara annaasi laa yuminuun waaw loolu mooy tax nag noonu kooku di am yitte pour horloge du am retard du am avance yi yàlla bind ci yow noon noonu la ñu war a amee ku am yitte muy roox bi muy nafs bi muy qalb bi muy jism bi ku leen di dimbale ba du ñu am ni retard ni avance bu ko defee nag ci ngay gisee natt ba ci yonent bi waaw illa qalilan nisfahu أو منه قليلا أو عليه جاي سترك وا ني روتار ورتل القران ترتيلا وا فينك ديفي نك كي لو بوكول ناك والشفع والوتر بل مو alquran fëggati ko beneen guddi mu ni waaw lu xew mu ne ko indil naa la beneen séet bu gën a màgg bu ànd rakkam mu ne ko nu ñu tudd mu ne ko mag ji al shafaa la tudd rakk ji al witre la tudd loolooy tax comme bi dañu dañ ko may presque am na ñaari julli boppam te mooy tisbaar ak tàkkusaan mais séddoo na ak suba gi séddoo na ak timis kon guddi gi lu muy am لا تخ نيو جوخ كو شفاك ويتر pour واو يو سيو سوان يوي تي هذه ببكرتها هذه بحرتها هذه بحمرتها هذه بوسطى هذه بظلمتها إذ يسكنون لها أكرم بظلمتها أكرم بسكناها بكون في كنا تأويل بابو نبي فإقرأ دم تعلم القرآن موي اندي لما لن وخون الصوم عن القراءة والمطالعة boo ca tolloo lecture da koy woor lu too jàng téere ndax daf lay tardeel téere daf lay tardeel waaw ndax li ngay seet leneen la waaw looloo tax rekk ñun nag jotu ñu am chance na léeg-léeg nga gis ci seen documentaire yi gën di def ñu naan la sëriñ Babacar diw ak diw ak diw ak diw ñoo nekkoon ay sëriñu daaraam di la wax ku mel ni Seyid Cheikh di la tuddal ñoom sëriñ Alioune Guèye di tudd ñoom Serigne Cheybatu mag ñu baax ñoo ñëpp ñu di leen tudd ku ci nekk ak bind ba daan tëral mais ñun ñun lan mooy sunu chance ñun ndax dañu tase kër gi tollu ci faydu mag ñi

man nak ma bëgg ko tontu te tontu ba du nek xulo sama livre bi ma ñëk bindé ma ñëw fekk ko ci kanamu kooku ma jox ko livre bi mané ma li nak mané ko mbako bindé bi mu liré muqaddima bi ba nopi da di sigg xol ma ni ma nga def ni li la ko ko ya xam de mu ni ma xana sant yalla

waaw di sant yàlla bu baax wax naa leen dama amul woon jot moo tax mënuma woon bind dara ma jéem fortaatu rekk ñëw li ma mën a wax ak as néew ma wax ko waaye dama am ay wëllëree tey la masa am ma tudd leen Serigne Habib Sy bu mam abdul Aziz si tay faral di nek aynu madi def di sama wolere bu amul morom te ñi ko xam ci kër gi barewul dinañuy faral di échanger lu bari mak mom daf may faral di wax ni coono bi may daj ci jang serigne cheikh coono bu ni tollu lay daj pour jang lo wax mané ko def di mbaxu mag ñi rek dañu xel ñun ñaara N'y ñaari yëf bu bi langage de vérité bi bu ñaareel bi mooy franc parler bi waaw Habib ku ñëwee dëgg la waaw te muy waxit du ko waaw échange bu mel xanaa dafa bari ñuy soow nan ñun dañu beru rekk sunu bopp rekk lañu faale te fekk njuumte la waaw Modou Fata Sarr ñëw seet si ma oustaz Cheikh mii moo ko indi ñuy waxtaan ma ni ko Mudu Fata mu ne am ma ni ko est-ce que xam nga lenn mu ne ah ma ni ko ku naw Cheikh bu Sëriñ Mansour la ma ni ko ñaar moo tax ma naw ko bu jëkk bi mooy nit ku teey la bu ñaareel bi muy xumb xumb yi doomu sëriñ yii di bëgg gis naa di bëggu ko yii moo tax mu neex mu ni ma jar na mu xam ko nag man ko bàcce des man ko ki ñoo wax sëriñ Babacar Sy Abdou nga ñu gën ko miin ci njool Fuuta waaw ma ni neex la ndax moom langage de vérité ak franc parler bi ci des mooy ci wàllu jol ku simple la waaw mu ma baax na nag xam ko pour wax la nit ñee xamul lu xew rek mais liy dox a ngi dox ma toog fan yii khalifa sar bii yobante ni ma wax leen ko niko wow wow waaw déedéet du khalifa sar boobu mu ngi ñëw pap Cheikh sar bii mo yoni Cheikh niko ko waxal góor gi ni soxna Umu khairi bu Sëriñ Mansour mu ma yobante ci moom nee nga waxal ko Sëriñ Moustapha niko ko mu ngi koy nuyu te mu ngi koy ñaanal yalla lu mu man te mu ngi koy sant ci taxawayam waaw ndax taxaway bi mu am ci kër gi bu ko ñepp amon kon kër gi dem na fenen waaw ummu bu serigne Mansour moko yobante bab pap Cheikh sar bi fan yi passé matagul sax weer ma toog tuuti xalifa Sarr bii ñëw yóbbante cheikh ni ko waxal sëriñ ni ko ba jënam umu xayri bu maam Abdou Aziz nee na mu ngi koy nuyu te mu koy bàyyi xel te mu ngi koy ñaanal la mu daan def sax di teew ci jataay yi yaramam moo ko mayatul waaye bu sañoon fu mu toog mu toog fa waaw ma ne ah, waaw kon lu des waaw rawatina nag sunu bàjjen yaay sufi moom ñëpp ko tane day saan day jooy rek day jooy rek njabootam yëpp daf leen xiirtal ci ban rawatina abdurahman abdurahman Touré ak soxnaam waaw wa tabarakallahu day ñaan day ñaan ba am na ci bu nga xam ne yàggul sëriñ Mansour Sarr a ko fekke waaw lu ne ñaan na ko man dafa nag yi nit ñi di wax lan hmm? boo xamul rek danga naan xamuloo waaw boo xamul xamuloo guddi gu ne bala may tëdd dinaa déglu sàmbuub dinaa déglu Doudou Kane dinaa déglu Pape Malick ak Cheikh Tidiane waaye dinaa déglu sama doom bu ndaw bi bu ñoo tudd bay bay nañ ma ko protéger waaw ñii kat taxawu nañu héritage yu mbay doon moo ma bàyyi leen xel waaw li ma leen di ñaan rekk ba ci sàmbu na bàyyi xaaju kenn du yore rajo ba noppi di xaaju waaw bu ñaareel bi mooy bu muy wàcc trajectoire am parce que mag ñi seen way ba wàccee sa trajectoire rekk dafay am lu mu rax te seen mbir dafa sérieux bu ko defee kon nag waaw ñu war a xam ni bokk dugal naa ñépp ci sama biir waaw dëgg la nag duma taxawaalu dëgg la itam duma ñàkk fayda invitation bu nekk dinaa ko jot ma seet ku ma wóor ni mën na dem ci sama place ma wax oustaz Cheikh mii ni leen def leen délégation sàngam ñu dem teewal ma nit ñu bari bu ñu sañoon yaay ñëw mo waaye doo dem di yàq yëfu jàmbur ndax Pape Malick Mbaye daf ma ni sëriñ bi bu ma sañoon moo am léeg-léeg yenn àjjuma rek nga ñëw jullee si jumaa ja ma ne ko ma yàq jumaay jàmbur c'est très important yow koo xam ni boo jullu see jumaa ji yëpp yëpp yàqu sa dem juma xaram na ndax ku ne dana jóg fa mu ne bëgg laa ñëw fekk fi nga ne nuyu la ko fa def boobu ci jumaa ji te yàlla rekk fa war a yóbbu nit ñi moo tax rekk yu bari ci tawil mooy tax dana bari lu war a mën a nekk waaye ñu di ko daw ngir am lu ñu sedd rekk waaw bu ko defee kon nag di ko xamee noonu dafay baax ñuy sant ñëpp ah ci bëccëg Haji Maxtaar dafa yóbbante di laaj ndax waxtaan wi wan nañ ko def en direct ndax dafa am ci chaîne télévision yi ñu doon ñaan pour def synchronisation ma ne ah ñoo ko moom moom mooy patron bi ci wàllu googu donc lu mu ca tëral rek lu ma cay déranger nekku ci seulement lu tax nit ñi sawar léegi ci sama waxtaan ku ne la nga war a dégg dégg nga ko waaw bu ko defee kon nag ñu ngay sant ñépp ñu ngay gërëm ñëpp dama xaw soj nag loo tax sax waxtaan wi ni mu waroon a gudde guddeewu ko ah di leen ñaanal yàlla rekk yàlla xam na ni duma xam sax lu ma yendoo ndax di xool njaboot gi minute bu ne ma jóg taxaw ci fenêtre bi xool njaboot gi ci tant bi xool ñi ci mbedd mi di leen ñeewant waaw léeg-léeg ma dem ci ba ci yàgg ma ne ah xam naa ni dama waroon a woo capitaine rek mu ñëw ñu wàcc benn yoon waaw ndax yërëm njaboot gi rek ndeysaan waaw am na ñoo xam ne midi midi fekk na leen ñu toog ci tant bi ndax bañ a ñàkk place jëm jëm ci guddi gi ci ku woor waaw waaye tabaarakallahu lu mu leen jaral rek jaral nañu ko yàlla xam na ko waaw dañuy bañ rek perturbation waaw waaye ñuy mujj rek di féetewoo ñaan ba bi heure dog bi di jot maa ngi sëpp ci fenêtre bi di tooñ séeréer si waaw di leen tooñ tooñu tukkuleer rek séeréer waaw ma ne am na ñoo xam ne di yàkkaar yàkk yàkkamti woon nañu ñu nodd waaw gaawantu tàndarma nangam nangam ma ne waaye ba tey baax na waaw la góor gi doon nettali ca sunu mbokk séeréer ba ba muy soog a tuub te taseeg koor te mu dog rekk ñu ni ko ay ca jàkka ja mu dem ca jàkka ja ñuy sëgg ka siggi rek ci naafila nee na bi mu sëlmalee daal di woo doom ji fekk mu ci biir sàppe mu ni ko dem demal woo sa yaay mu ni ko ma wax ko lan mu ni ko ne ko mu ñëw ndax fii la ñuy jógee dem aljanna waaw <laughs> ndax naafila yu bare waaw ndeysaan waaye fekk na ku nekk ak la nga yéene yàlla ku nekk ak la nga yéene yàlla waaye dafay am lu nga xam ni ku nekk da nga koy négocier bala nga cay yegg Maodo Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu négocier nañu lepp kon ku tardé rek ci yow la waaw du deug الله حسبي لمن بالسوء كاد بنا كذاك عند مماتي حسبي الله لدق هم؟ وعند مسألتي في القبر ذا فرق لما اقترفت ذنوبا حسبي الله وعندما نصب الميزان معدلة أرجو نبي الهدى قل حسبي الله لدك الله حسبي إذا مد الصراط على متن جهنم مدا حسبي الله دفن لي ku dëkk di ko ñaan bis bu ne nu la yàllay def hmm? fokk yàlla am moom it lu mu nangu waaw moo tax ñoom kenn mënu leen fay waaw xanaa di ñaan yàlla di yokk seen leer di yokk seen barke yàlla gën di yaatal seen mission ba fu mu war a yegg mu yegg fa loolu daal la amoon ci lu ñoo sant wax leen ko mag ñu baax ñii fi ñëw te Oustaz tudd leen ñoom ñépp nag waaw kenn ku ne waa jaamal ak ñu jëkk dëkk Jurbel ak waa kër Magay Njareeg ñëpp kenn ku ci nekk fii seen kër la ñoo ko moom tabarakallahu sëriñ Mor Njaay xaqiqa mu di limaamu lay de sëriñam it nañu ci boppam lu jar ñu tudd ko sant ko waaw mu de Cheikh Ahmed Tidiane Diop bu Maktoum Burut waaw ndigam ña ca wala ndoowa daanu teen ba masaak ña bind ba waaw wa tabarakallahu jàmbar la waaw bu ko defee rek nag sunu mbokku Mansour Diop tabaarakallaahu maa ngi koy yóbbante sax ci Pape Alé fekk ci information yi rek ni ngay dégg ñoo am nu ñu waxe te fekk na ndekete demewul noonu waaw ba ma yóbbante ko ci Pape Alé waaye tabaarakallaahu bu demee neneen nit waaw honneur baa ngi fi ñu di leen ñaanal yàlla mu mel ni nag sama mbokku séeréer bi waaw Bachir Diomaye Faye waaw mook sama mbokku Casamance bi Ousmane Sonko waaw ñoom la yàlla dogal ñu nekk tey ci kanamu réew mi kon nag li ñuy def rekk mooy ñaanal leen yàlla yàlla tette leen ba ñu mën a tegaat réew mi ci fiñ ko war a te Sénégal rekk yàlla ruus mag ñi fi tëdd ba may leen jàmm may leen sutura may leen tawfiq incha loolu rekk moo nekkoon kàddu yi bu gàttee it xëy na beneen yoon mu gudd ci marché wul itam wala sunu xam-xam yàggu ja yéen asatid ana bu oustad Modou Fall jógee bopp mook oustaz Cheikh waaw ak imam Samba job tabarakallahu ñoom Oustaz Malick ànd ak seen responsable yu baax yi sunu collège yu père yeeg collège yu mère yeeg commission féminine yeeg dem ba ci sunu cadet yi Moustarchidine junior yi waaw tabarakallahu sant ñëpp waa parti bi itam seen parti la ñun dañ leen di gunge rek tabarakallahu ah Alioune maa leen ko propose te teguma ko ci caaxaan te li ko yàlla yéene mu ngi ci yoon di ñëw incha bokk yu baax yi di ko gunge imam Cheikh Mbeng imam Moussa gay. ak imam Cheikh Ñang ñoom ñëpp ku nekk ci sa façon sunu mbokk Abdul Wahab Sakho moom itam ci biir taxawaay bi tudd nañu sunu way juru bopp bi xaaja Habib Gaye waaw muy bàyyoo xale yi di leen ñaanal di leen gunge keroog bi ma ko gisee mu sol t-shirtam ak kasketam waaw ma lii di man rek maa ko ko jaral waaw waaw fa tabarakallahu ndeysaan di ñaan rek di ñaan di ñaan di loolu rek nag moo ñu fi bàyyi mu ko defee kon nag soxna umul xayr li fi ne yëpp moom mooy taaw taxaway bam ci ca war a defit bi ñoom Alioune demee Pikine la ko fa war def na ko fa te Alioune rendre na ma compte kontaan lool ñoom soxna Fatima ak ñoom yaay ci niveau femme dévouée li ñu man def nañ ko fii pour jàppale ko Alioune mu mel ni kenn ku nekk façon ba nga mëne def nga ko tabaarakallaahu cheikh bërki démb wala démb sax la mujj ñëw kër ga jox cheikh Sarr enveloppe bi def résultat wu élection yi waaw wa tabaarakallaahu da ngay bàyyi noonu ndax Pour à affaire politicien rek la kon man na demee neneen waaye tam du affaire politicien dafa bok ci sunu tarbiya waaw bu ko defé kon nak pur man mom mako aliyun cheikh mbeng moomu ko cheikh yu moomu ko ñoom ñii ñoom capitaine mii ñoo ko moom seen ay mu ngi ñëw waaw kon nag ñu di leen ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan may leen wér may leen tawfiq ba li ñu bëgg a réaliser yëpp ñu réaliser ko ci baaxu mag ñi incha allah kon xanaa ku nekk bokk gannaaw bu ñu joxee capitaine mu tëj joxe ñaan ñu ñaanalante bu ko defee yeewante rek ba yàlla mayatuñu ñu daje du yàgg ndax ñoom ñu ngi commencé seen programme ci korite gi luñ leen mën a gungee nag ñu gungee leen ko waaw te ñaanal leen yàlla incha allah kon nag góor gi nga mottali baat yi rek te joxe ñaan ñu ñaana leen ñaanalante incha allah tegati ma ne lu ci nit di tegati man de lenn rek laa ci mën a teg xëy na dana xaw niru bu ma ko sañee wax baatu fayo ndax am na yoo fi tudd sànq waaye amee am na baat boo tuddoon ci daje bi mu doon def irshad ne li nga jëloon ci daara Serigne Cheikh li ci amoon joxe nga ko waaye man danga ko wax ba pare sama xol tàng danga ko wax sama xol tàng ci waxin xaw ma yéen de waaye man soxla ma daaray Serigne Cheikh sa daara laa soxla ndax xam naa ni man daara sëriñ Cheikh du ma jëriñ sa daara may jëriñ kon nag si teel naa joxe sama inscription du tey sax waaye daa am lu may seede ndax ñoom ñu xam ni seen wàll du problème ma leen di yóbbaale rek tarbiye yitte la yitte la boo leen deful seen yitte sama yitte du yóbbaale seen bos man nag joxe naa sama inscription yéen a ci des kon nag si yaakaar naa loolu doy na yàlla yàlla di xeeb di dolli te buy xeeb na ko xeeb ci suñu tuutiwaay waaye buy dolli na dolli ci moom màggam ci mbaaxam ak ci barke mag ñu ñu yaakaar kon nag ah ñu jàngat ñaan bi defaat fatiha bi juróom ñetti xurayshi falaxe ak naas bi ayatul kursi yi salaatul fatihi ci barke guddi gi ci barke weer yàlla yàlla faj aajo yëpp yal yàlla wéral cër yëpp yal yàlla ubbi bunt yëpp te nëbb safaan yëpp ci mbaaxam ak ci barkeem mag ñuy yaakaar bismillah Euh, mu mel ni téléspectateur Mourchid TV ànd ak internetu éveil comme niñ ko defee woon rek ci njëlbeen bi ànd kook suñu kilifa Serigne Mouhamadul Moustapha Sy mu ñëw ak ñun tey encore ci thème waaye itam ci jàngale bi nga xamante ni jot na ko jël jagleel ko njaboot gi ak mboolem kuy euh, déglu enseignement woo moo xam nga jaarale ko Mourchid wala nga jaarale ko éveil ak fu mu mënti doon sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy indiwaat na encore leneen bind boo xamante ni ci àlluwa daanaka gaawul nga di ko gis ci ndaje yu ni mel ci ndajeem rek nga ko mën a amee ak ni mu ci àndeek maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy al capitaine ci anam bi nga xamante ne moom tamit noonu la ñëwee tëj ko te wax ne daaraam moo ko ñor te loolu rek ça veut daara kilifa gi moo ñor maam Cheikh Ahmed tiijan si capitaine comme ni mu ko waxee Pape Mor Lo. waaw allah orientation bi yàlla def ñu doylu ko yal na yàlla def ñu jariñoo ko yal na yàlla def ñu muurloo ko incha allah di sant yàlla bu baax a baax. ci laylatul qadr bi lépp luñ ci def comme ñaan moom kilifa gi ñaan na ko yal na yàlla mottali yéene yi incha allah en tout cas lu lépp woyof na te dara diisul woon lépp woyof na xol yi bég nañ euh, jëmm yi kontaan nañ yàlla na yàlla mottali incha allah bàyyi ko sunu kanam lu yàgg a yàgg am na koo xam ne sagal Sénégal la sagal adduna bi la sagal na Sénégal sagal na adduna wax dëgg yàlla da nga koy dégg rek wallahi da ngay kontaan yal na yàlla mottali incha allah wax dëgg yàlla kontaan di remercier ñëpp téléspectateur Mourchid yi doon sétane ak wa éveil di ñaan yalla eh, li ñu déglu ci waxtaan bi yalla nañ ko jariño di lañ jox dig dajé inshallah ba benen rendez-vous bu sobé yalla salam da ngaa dig dajé parce que Serigne Mouhamadou mustapha si mo ngi nonu di génn ci eh, ci chapiteau bi eh, ànd ak Mame Babacar si ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine way sank da nga wax lu am solo ci ndjel ben bi et d'honneur yi bu ñu bañu génné Euh, da nga wax ne et euh, donneurs yi daf ci am loo xamante ne daf lay fàttali gàmmu pour wax la ne la guddi gi ni mu toll ak ni nga xamante ne noonu lañ koy màggalee ci kër Serigne Mouhamadul Moustapha Sy moo xam ci côté décoration waaye lépp loo xam ne rek da koy génne ci gàmmu ci champ des da koy indiwaat fii tamit si biir këram te mu dellu ci image yi nga xamante ne moom lañ nekk nii di gis nii ak ñi muy saafonteel. waaw guddi guddi bu mu mën doon. soxna Oumou Sy la soxna Eh, guddi bu meuna don a doon wu yew la ci mom guddi wu mbekté la guddi wu jamm la ndax mom moy top ruh yi mu sarchit yëpp mom lañ don xaar nga wax deug yalla ni ngoy gisee ni image gamu gi la rek ndax image gamu gi mam babakar ak mam Cheikh mu andak ak moom muy wat image ba rek waaw fu muy dem rek ak mam ak mam Cheikh rek ndax mën nañu wax ci age ñi la waye ñi ngi représenté symboliser ñi nga xam ne ñoom la ki yoon kenn ki di kilifaam kenn ki di maamam donc yàlla na yàlla barkeel yàlla def ñu muur loo ko incha allah wax dëgg yàlla kontaan nañ trop yàlla na yàlla barkeel bu soobee yàlla mi ngi noonu di génn ci biti wi na la ko defee woon euh, génn saafonte ak njaboot gi nga xamante ne mu ngi surtout ñu nekk ci biti di ko xaar waxee Pape Morlo wallaay ndeysaan euh, wallaay wallaay njaboot gi nga xamante ne heures fekk na leen ñu génn déjà

ñoo féké ci événement bi ñoo féké ci dajé bu am solo bi yàlla na yàlla mottali ngay xamné rek mom tamit limu wax rek tiofel bi bim mu ñu làmbal njaboot gi ëpp na yàlla na ko yàlla mottali allah donc mom ak lu yaram bi mëna metti mu sox tanki rek wax deug yalla dem talal len loxo ak ñom safon tak ñom lolu rek benen affaire la yalla nako yalla motali inshallah benen allah. bi ci dess Pape Mor Lo lu mata baye bàyyi xel la moy ke ñom mbolo bi ni nga xamantene non lañuy non lañuy ñëwé ci yéene waaye itam mi daf ci amaat yeneen loo xam ne dañ ko seetlu mooy que ne kër gi positionnement moom entrée ci waawoon la mais Serigne Moustapha bàyyi xel bi mu bàyyi xel njaboot ak tamit bañ a lor dëkkandoo ndaxte ñiy romb ci tali bi oto yeeg yooyu yëpp ñooñ mën nañ ne tamit suñu ay dëkkandoo lañ parce que fi lañ dëkk waaye itamit moo tax mu ne ginnaawu këram nañ ñëw njaboot gi yëpp di jóge ci taliba tey ñëw ginnaaw këram kon maanaam ba ci raay bi ku xam position bi kër gi nekkee ci ginnaaw raay bi sax njaboot gi fépp ñu ngi fa waaye tamit dafa am disposition bu mat bu ci nekk Pape Mor. Hmm. beneen côté tali bi sax noonu la mel mooy beneen côté tali bi féete na le foofu tamit noonu la feesee ci picc noonu la feesee comme ni nga ko waxee ci wetu raay beeg ginnaaw raay bi noonu tamit noonu la feesee côté yëpp daanaka quatre coins yi nga xam ne moo wër kër gi yëpp dafa fees waxuma laa kër gi nga xam ne ak distance bi nga xam ne moom la chapiteau bi àndal macha allah teewaayu njaboot gi parce que ñi ngi wax sànq daanaka ñi dëkk dakaar wala ñi dëkk euh, Thiès ak Tivaouane ñoom ñoo gën a sori rek waaye ñoom ñoo gën a jege te ñoom ñoo gën a tuutile waaye ñi yenn nekk yeneen région yi ñoo ëpp fuuf seen teewaay wax dëgg yàlla ñu gis ko noonu mu ànd ak maam Cheikh Ahmed si capitaine li ma wax sànq rek kilifa boo ko amee nga foo ko teg dafay feeñ ba si lépp moom ngay gis si lii ak wax bi tudd Tudon nga ni école Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane ci maktoum nga jangé te liñu jangalé jàngale nga ko jëlé waaye ñun liñu intéressé moy sa école parce que ci yow lañu mëna jëlé lool dafa beneen affaire la loolu muy signifier euh, grandeur bi nga xamné ne euh, wala ciofel bi nga xamné mom la am ci grandeur u Serigne Moustapha Sy donc ñaan yalla yalla na yàlla mottali loolu yéene bi nga xamné ne la am ci digënté ma kilifam, kilifam aussi yéene bi nga xamné ne la am ci mom, lepp ñun njaboot gi ñu jëriñu ci bu soobee yàlla Sénégal jëriñu ci aduna jëriñu ci ñepp jarign ci inshallah ta bu kenn manké bu soobee yalla wax deug yalla mu doon mi ngi non di dugg ci kër gi wax dëgg yàlla kilifa gi ah da melni haza khatimuhu <laughs> xitaamuhu mis miss fi dalik ya, wala ya, yatanafasil mutanafisun yalla ya, yalla nangu ñaan yëpp Pape Mor Lo ñu yag ko di teewe ay ati ati at kenn baña a di del di jaajeufal équipe technique bi yépp donte ne sax min ka ilayka lay nek parce que suñu bir la di jaajeufal ñi eh, nga xamantene ne tamit ñoom ñoo ci sécurité bi di jaajeufal wa santé parce que logistique bi yëpp lañ mën a wax pour man ko pour mën ko simplifier di jaajëfal ñëpp ñu jàpp si liggéey bi de loin ou de près te du ñun lekk waaye am na ñoo xamante ne euh, ce sont de hommes de l'ombre comme ni ñu leen koy faral di woowee ñoo ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen joxaat rendez-vous ci yeneen i jotaay yu ni mel andi ci ceeg pap Mourlo mu nek équipe bo xamante équipe de production lo buñ né production rek jeexna na eh Mourchid ñëpp dañuy dugg ak digital ak ñom ñëpp. bala nga bala nga jeexal Binta bala nga tej ma remercier mam as profil. Ah, mom bi nga xam mo wa moma ma fi tay ñi nga xam ne ko demandé. <laughs> donc ñu remercier ko wa ci tenu bu am solo bi nga xam mom lañu ki di remercier ñi nga xam ñoo doon sétane di ñaan yalla xol yi fess na. xol yi tooy na yal na yàlla mottali lépp cafeel gi nga xam ne moom lañ am sunu diggante ak sunu kilifa yàlla na ko yàlla mottali ñaanal na Sénégal lu am solo la ñu suivre ko ñaanal na Sénégal donc yal na ko Sénégal jëriñoo parce que am na koo xam ne du daayira kese du tariixa kese du. Euh, religion kese mais Sénégal ak àdduna bi yëpp la comme que ñaanal na Sénégal donc yàlla na ko Sénégal jëriñoo incha allah ndax kuñ ko ku ko nangul rek jëriñoo ko wax dëgg yàlla yàlla na yàlla mottali donc di sama télé waa Mourchid TV ak waa EVE ñun ñoo ko bokk man EVE laa bokk Mourchid laa bokk xaw ma nan laay wax <laughs> donc yàlla yàlla mootali incha allah Pape Mor di remercier Banne borom Maktum Couture moom moo génn ci robe bi di remercier bu baax Ndiatte Dia Koura Rasoul Ndiaye Souleymane Bari bu ñu limee dañuy juum ñu ngi remercier ñëpp ñu jàpp si liggéey bi ba lépp mën a yemb ñu ngi leen joxaat rendez-vous balaa yàgg ci beneen. laytaay bu ni mel Pape Mor wala sax ci yeneen yu ni mel ah baax na euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax spectateurs yi ak internautes bu EV ñu ngi leen di jaajëfal maam Cheikh Ndiaye bu Daaru Rahman mu ngi fii ci waa technique ñu ànd ak moom Euh, papaam mu ngi tudd Yoro Ndiaye yaayam mu ngi tudd Marème Diop papaam mu ngi tudd Yoro Ndiaye yaayam mu ngi tuddu Marème Diop am na benn caabi oto bu ñu fi indi ah indi nañ fi benn caabi oto indi nañ fi tamit benn carte d'identité Yoro mu ngi tëkk meewaan Yoro Diop meewaan sa carte mu ngi fii